jaajëfatee eh, j'espère que le son est bon xool ma sax ndax def naa ko bluetooth wala defuma ko bluetooth fàtte naa xaar gars yi melem est-ce que son bi baax na wax leen ma parce que su ma ko defee bluetooth du baax je sais même pas si euh, j'ai pas vérifié j'ai pas vérifié si bluetooth la wala du bluetooth gars yi dites-moi si le son est bon sinon ma def ko bluetooth ma dindi bluetooth est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? C'est bon? Ok, bien. Parce que des fois, je vais faire un peu rek def bluetooth yaa ngi gis ngeen Brooklyn laa nekk nii gis ci ci américain Je gis c'est beau Je rek gis Amérique ngeen di am nit ñaa ngi di féppoo génn woon leen Brooklyn ah ñu ñëw wax ci Sénégal dal ci Macky Sall comme d'habitude gars yi gis ngeen population bi gis ngeen gis ngeen xale américain macha allah macha allah macha allah il fait très beau waaw mais gis nga temps yi taluma sax doxal ko taluma dara live rek waaye xam ngeen ni lii jéegu américaine bii ko am looy wax ah gars yi xool xaar ma woon leen ngeen xool xale bi nu muy daago xam ngeen ni kii borom kaw karaw bu blonde xam ngeen ni kii ah euh, takkusaanu takkusaan jotagul euh, euh, tisbaaru tisbaaru Brooklyn ngeen di am foofu waaw foog ma leen di wan circulation bi n'est-ce pas waaw yi il faut ñu ñëw wax ci euh, Sénégal wax ci euh, <laughs> ah gars yi du ci ñàkk nag il faut ma wan leen américaine ni ñu ni ñu féexee gis ngeen kooku noonu gis nga lu mu sol il faut que ma wan leen il foog que ma wan leen Amérique nu mu demee xool leen jéeg bi seen ginnaaw gis ngeen jéeg boobu noir américaine gis ay jéegu tubaab. ah parce que da cee baax nag da cee baax gars yaa ngi ree de xale américaine yii ku leen moytu wul ah man de heureusement taluma leen sax waa gaa yi da ngeen di like nag boo leen duggee da ngeen am da ngeen war a am habitude boo leen duggee rek ngeen like ngeen partage sinon live bi YouTube du ko recommandé wala gars yi dañ koy siñaale xaw ma la ñuy wax waaw bëgguma gars yi signalé live ma dem toogi fële damay dem toog su ma toogee jël sama temps

que ni Sénégal amna luy wadi am man des fois dafa mel dama am yegg yëg waaw gaay yi exina des fois mom day mel ne dafa mel ne damay yëg laaj leen partant ki neen en tout cas jambar bi ah demb def ma parce que demb dama amone rendez-vous wa affaire waxna naa leen ngeen ñaanal ma ma am liggey sinon buma liggey wul chaque jour live demb dama demone euh gaay nak ñaanal ngeen ma ay ñaan yu fort mais j'espère que dina bax inshallah ñaanal ngeen ma ay ñaanu fort pour ma dem commencé job ni ma fiy top chaque jour lu tax doo liggéey looy def demba de dem na maa ngi ci affaire yi tey sax ba ma yeewoo dama defaat dama demaat kon nag seen ñaan yi moom na gën a dal rek surtout waa APR bo lu bëggee ma may seen président jàmm ñaanal leen ma dem liggéey waaw day xaar ma waanaat leen tuuti ci jéegu américain yi ngeen xool ngeen xool leen ni ñuy daagoo en attendant

dañ koy ki ne ne da ngay am lu baax inshallah merci non damay gën am lu baax lay wax man tok ma ngi sant yalla man duma ma jàmbat de tok ma ngi sant yalla damay gën am lu baax liggéey la rek ak sedd bi commencé sedd bi mu commencé mais kiwul tay dafa xaw a est ce sama li sax duma ko summi way fi bu ko summee yoy son sonal na gars il faut ñu wax ci Sénégal révolution lañu wax parce que Macky Sall légui dafa dafa dafa rakaj gis naa nag nee naa leen monsieur Cheikh bu ma commencé def live chaque jour ça veut dire que dëkk bi day waaj yëngatu te dëkk bi Guy Marius Sagna dina ko yëngal ndax activistes yi dañuy dañuy marche mais waxoon naa leen waxoon naa leen Macky Sall ragal la tapet la vrai buqat lu tax jàpp ñu ko tey ñu naan dañuy xaar ba semaine prochaine doog a génne verdict wóolu nga sa bopp kay wóolu nga ko sama procureur nee na tëj ko 6 mois 2 mois loo ciy xaar ragal vrai tapet sama benn abonné sax moom moo ma wax ne dañuy bañ Guy Marius Sagna présenté wu maire Ziguinchor moo tax ñu bëgg utal casier judiciaire loolu la ñuy bëgg mais Guy Marius dafa naa mosul am casier judiciaire ay affaire yu ñàkk fay di lañ koy jàpp mais Guy Marius dañ ko war a def maire de Ziguinchor comme ça mu contrôler Casamance son son koo jël Bignona Guy mari jël Casamance euh, Ziguinchor kii nee na amal jàmm jaajëf yéen tam am leen jàmm waaw amoon leen ci ci jéeg jéeg bi jéeg yaa ngi nii di daagu di daagu bu baax a baax a baax yéen ñi bëgg ci jéeg américaine yi xale jigéen nag bu leen ma bu leen ma mere gars yi il faut que leen ci jéeg am na beneen am na benn jéeg bu baax buy waaj a jigéen ñi ma woon leen ci mode yi américaine li ñuy temps yi lii la ñuy sol quoi xaw nu ñu ko tuddee genre pantalon yu seere yi dañ ko bëgg trop

du du 2024 du ko fi egg parce que moom moo ñu woo ci ci ay moo ñu woo ci ay ñun ay démocrate lañu Sonko gis ngeen ñun sax ñu ngi commencé dal Sonko parce que sonkoo dafa dafa commencé nooyal ñun sax ñu ngi dal Sonko Macky sàll ci boppam moo wérul Macky Sall ci boppam moo xamul lu baax ci moom li baax ci Macky Sall mooy mu ni tekk tekkaaral buy sàcc mu sàcc waaw non man li li ma leen waxoon rek li ma leen waxoon rek am na nee naa bu ma commencé def live am na luy waaj a am. ndax Guy mari Sagna fi mu nekk Macky Sall xel bi mooy werante ma jàpp wala bu ma jàpp ma jàpp wala bu ma jàpp comme nag ak activistes yi nee nañ dañu yëngal léegi mu tàppet bi léegi mu daw vrai buqat mooy Macky Sall léegi mu daw léegi léegi léegi mu daw bàyyi Guy Marius Sagna ñun waxuñu sax gi mari Sagna kilifa sax dañ koy bàyyi ba pare ñu nekk fi di yàq deru kilifa naan kilifa da doon jooy démb ak ñoo bon ak ñoo bon loolu boo ko liiree dangay ngay génn ci kilifa nee nañ kilifa da doon jooy comme xale gars yi like leen partagé leen 64 personnes 13 like yéen tamit il faut ngeen may jàppale il faut ngeen may jàppale ci like bi da ngeen koy partagé di ko like comme ça YouTube gën ko recommandé waaw man li may wax dama war a am ay ay 400 personnes mille personnes yu may seetaan parce que man Sénégal laa bëgg mu changé waaw Sénégal laa bëgg mu changé te li ma leen wax yëpp day am newoon naa leen procès bi dañ koy renvoyé waxuma leen ko fi woon. démb rek xam bërki démb waxoon naa leen procès bi dañ koy renvoyer ragal lañ yow yow juge boo xam ne sa décision yaa ngi koy jëlee ci température dëkk bi loolu du juge juge yoo xam ne dañ leen di wax tëj leen bu leen tëj loolu du juge fi mu nekk nii xam naa ne tribunal gars yi dañ fa fees del tey mais Guy Marius Sagna du n'importe qui Guy Marius Sagna du kilifa de ngay jàpp ni ñu toog de la seetaan Guy Marius Sagna waa FRAPP ñoo ko ngemb waa FRAPP ñoo ngemb gi Marius Sagna gi Marius Sagna du koo xam ne dangay ñëw rek jàpp patam patamee yóbbu du fa demee noonu waaw du fa demee noonu dañ koy bàyyi par force parce que buqat la bu dee da nga bëgg nat sa doole mag Sall bu dee da ngaa bëgg nat sa doole comme danga ngaa dëgër bopp comme yow il faut nga forcer troisième mandat mais xalaat TV merci xalaat TV merci parce que xalaat TV moo ñu tegal loo xam ne fàtte woon nañ ko sax bo len setané xalat TV bu bes bu mujjibi révolution lañuy wax yéen a ngi yéen gis fu muy waxé Macky Sall fi Macky Sall di waxé né euh num mu di Macky Sall la la waxati mu ne li fi aw li fi am barki demba Sénégal dafa nek démocratie rek waye xam nga ne bu dul démocratie da fay am dé yu bari ba paré mu mer funkil kanam gi loolu do fi amat ba pare mer mi Macky Sall moo yebaate da fi amate yow tappet bu mag bi yeen ñu noq ngeen daw ka taxaw fi di menacer nit ñi naan da fi amate mais Macky Sall Macky Sall Macky Sall du gor way lu tax waxoo ko woon lu tax waxoo ko le 9 mars ba nga jëlé di wax je vous ai entendu je vous ai compris du loolu la waxon je vous ai entendu je vous ai compris yeuf yi passé mu nek fi di soop nan li fi amoon doot fi amate boo bàyyiwul di tëj Guy Marius Sagna wala nga ne da ngay tëj kilifa li fi amoon dafiy amaat billaahi barki rasulaay te bii paa dañuy génn te amul sëriñ bu ñuy téye amul gars yi like leen partagé leen nit benn yoon ngay dee laaj like leen partagé leen like leen partagé leen gars li may wax nii dafa am solo gis nga àdduna bi yàlla moo ñu bind nii ñëpp amu leen loolu ragal gis nga borom jant bii borom jant bii moo jar wóolu moo jar a ragal mais Macky Sall la la il faut que nous il faut qu'on se radicalise il faut que nous ayons pression pour le dellu ginnaaw delluwul ginnaaw tey dama leen di laaj ndax dellu na wala delluwul ginnaaw dama di laaj ndax wala ndax kat de ko eh, vrai vrai Ousmane Sonko Ousmane Sonko il faut que nous interpellions

presque trois semaines dafa nous waaw mënuñu fi xaar fii élection Macky Sall dañ koy dégager on va le dégager s'il nous provoque s'il nous provoque on va le dégager mi fi, di defaru n'est-ce pas ah di xoggaliku waaw di defaru ut gën a ut armée gën euh euh, euh euh ay nervi Out ay nervi out armée mais lolu du ko ci génne Macky Sall lolou du ko ci génne xam nga la moko ci génne mu respecté nit ñi waaw gaay yi commenté leen ma xol commenté len ma xol waaw man daal li len di wax rek moy ah jaajeuf ah, arti arti melo gën len like gën len partager tay mom je suis là dama len di won dëkk bi dama len di won circulation bi place bu baax la yor ngeen xol ci américain ni gentleman ni jigen ni ngeen xol mordu tay mom dama bëgg jël sama temps sama batterie chargé nako waaw ma won len américain ni ñuy daago ngeen xool ci tubaab yu baax yi xool ci ci naar yi gars yi apprécier leen apprécier leen bu baax am na benn benn américain buy waaj a ñëw ndeysaan xale bi de ni muy daagoo sax dafa baax dafa mel ne TikTok lay def waaye gars xool leen ma xale bi waay ah, kii de dafa mel ne TikTok si am la nekk gis ngeen ko noonu loolu bala mu ensemble bu ñu muy daagoo noonu ah kii ku ko am doo wax dara loo wax gars yi loo leen wax ay ndax yi xool leen ma kii jàppal len ma ndam ndamal gossas bi han ah, lo len wax ci ndamal gossas bobu gay lo len wax ci ndamal gossas wa man sama live mi ngi bëgg a ni <laughs> da ci bax nak mo won len mod jigen ni jigen ni rek la bëgg won mod gay la ngi leen won len ci américain ni te tiktok di ñëwaguñ bu yakam ci façon nit bu ne di ngeen ko gis fi fi moy america fi moy america ay eh, xalé jigen ni dama di won mod rek mod america la len di won jantal ne ma won len ci waaw waaw a ah, da ciy baax nag buñ fi nekk rek di wax moo leen ci tubaab yi wan leen ci euh, ci noir américaine yi te fii sax fii fii rëbb rëbb xëy na bu ci kanama kanamee mën na am ma dem fi ma demoon bu ci kanama kaname ma dem fu ma demoon ma wan leen bu dee jigéen da ngeen bëgg gis robb bu leen jaaxal parce que tey dafa tàng tey moom xam naa ne xale yi dañu rakkaaj gars yi toog leen bu leen dem bu ci kanama bu ci kanama kaname bu ci kanamee damay dem doxantu ba foofu foofu moom dafa rëbb di ngeen gis façon solo bu ne mode façon mode bu ne xam nga live tamit des fois laaj na ñu koy euh, ñu koy xoromal waaw laaj na ñu koy xoromal yéen ñi bëgg ci américaine mais nag balaa ñuy wax loolu il faut que ñu wax ci Macky Sall waaw xaaral ma li kii ne les jolies filles sexy des USA non da ciy baax da ciy baax des fois ñu def tuuti pause waa gars yi il faut ngeen di laaj nag ngeen xool leen rek ngeen xool américaine yi nu ñuy dundee xool leen rek gis nga ñuy liggéey ba wàcc ah nekk seen téléphone yor seen boisson di naan. macha allah macha allah des fois nga gis fi ay touristes waa gars yi da di gën a like gën a partagé ma nga leen Brooklyn waaw parce que tamit mënuñ fi nekk chaque jour rek di dal Macky Sall di dal Sonko mel ni laaj na de temps en temps ngeen xool ci xale yi ngeen rêvé gars yi like leen gën leen like gën leen partagé bu ci kanamee damay doxantu damay doxantu wan leen Brooklyn tey moom climat bi dafa nice il faut ma dellu fële il faut que ma dellu euh, Barclay Center leen woon façon jinne boo bu ne

mais ñun dañu yaakaar ne Macky Sall moom moo wara daw coow moom moo war a daw fitna Macky Sall kan moo koy conseil gars laaj leen gën leen laaj gën leen partage man loolu laa bëgg xam kan mooy conseil Macky Sall kii ne dañoo bëgg rêver mais Sénégal bu ñuul amul moroom fii Amérique lu tax mu doy waar mooy façon yi yëpp nga fiy gis da ngay gis chinois da ngay gis sénégalaise da ngay gis américaine lu ne ngay gis waaw. Amérique mom, fi la terre, fi la raay bi terre. waaw gars yi dal, euh, daal man li may wax rek mooy dafa jot dafa jot sénégalais yi génn man ma njëkk wax dañu wara radicaliser wu dañu waxante dëgg ma ko fi njëkk wax na njëkk wax ne dañu wara radicaliser kon nak suma ma gisee TV def émission di wax révolution la ñu soxla soulèvement populaire moy nit ñi foog ñu génn bu leen ci xaar sëriñ yi loolu euh, kii wax xalaat TV bu leen xaar sëriñ génn bu leen xaar ah opposition bi du ñoom ñoo leen di génne parce que opposition bi ñoom bëgguñu dëkk bi changé parce que ñoom seen affaire dafa baax ñoom ñu ngi yor ci 4x4 ñu ngi yor ci kër yi yéen ñii yéen a mën a génn pour ngeen xeex injustice Macky Sall kenn du ko fi bàyyi muy yoot di jàpp nit ñi par benn benn xolom bu ñuul bi xolom bu bon bi ah jàpp nit ñi par benn benn di tëj loolu ñun duñ ko seetaan duñ ko seetaan gars waa gars yi like leen partagé leen bu ci kanamee damay jóg léegi léegi léegi laay jóg dem fële tey tey il fait très tey moom il faut que je bouge il fait très ma wan leen ma wan leen New York wan leen Brooklyn regardez wan leen la mooy développement n'est-ce ngeen gisal seen bopp waaw tey moom dama dama leen bëgg defal un peu de tourisme quoi est-ce que du ma ci commencer dox léegi sax wala ñu wala ñu discuter ba ci kanam wax leen ma lan ngeen bëgg. ñu continuer ci débat bi ma wax ci Macky sàll wala ma jug doxantu parce que il fait tellement boobu nañ def benn sondage bi non wax leen ma rek lan ngeen bëgg ma doxantu ji wan leen circulation bi ngeen rêvé tuuti surtout yéen kii nee na ma demal aat keneen lu muy wax arti melo loo wax euh, euh, waaw kii nee na ma xol bu ñuur la yor sondage laay def ma toog fi ma toog wala ma wala ma jug doxantu wan leen dëkk bi tuuti ngeen xool ci xale yi jigéen ñi ngeen xool ci mode yi gis ngeen indien yi gis ngeen leen bu may filmé nag il faut que je sois discret parce que américain yi ñoom bëgg ko leen filmé kii nee na waa waxtaan ak doxantu ah roqee lan nga bëgg ma toog wala ma dem doxantu war leen ci mode yi ci mode xa ci xale américain ma dem fële foofu may daan dem ak ah, gars yi neen dañoo bëgg xool kon nag ah il faut que il faut que ma jël taal ma jël sama mouchoir gars yi ma wan leen après ma wan leen dëkk bi ngeen xool surtout bu ma eggee fële di ngeen gis loolu musul gis tey moom gëm naa leen ak climat bi du mel ni billaahi américains yi ñoo rafet parce que sa xel bu dalee gis nga nit boo nekk ci dëkk ngay liggéey sa xel dal ngay lekk bu baax am xaalis di jënd xolal no ñu nekk sa yaram sa yaram day dundaat waaw américain yi seen yaram seen yaram tubaab bi sax da nga ci gis ay tubaab yoo xam ne xoolal kii xoolal tubaab boobu ak li muy doxantoog noonu ak xajam tubaab bi da nga leen di gis ba ñuy mool xale yu baax nga gis sama jabar rek nee naa ko bul seetaan man damay damay commenté pour sama sama abonné yi laa bëgg ñu rêve tuuti comme ça ngeen ñëw Brooklyn fii la terre bi raaye fii la raay bi teeree ma fii la terre bi raaye waaw def leen ndànk rek maa ngi dox mais balaa may egg rek dèjà dinaa leen wan lu bëri waaye su ma eggee fële Barclays Center di ngeen gis xool leen fii. fii moom génération TikTok la TikTok yi ñoom dañuy jàpp seen bopp yi di ko tent mais xool leen rek xaaral ma def leen vue panoramique leen si ngeen tubaab boobu noonu xool leen fii nu mu rafetee regardez xool leen parc bële sama ginnaaw Sénégal kañ lay mel ni te on va faire un peu de tourisme gars yi laaj leen partagé leen. gën leen like gën leen partage après nag dañuy wax dañuy wax ci politique bi wax ci Guy Marius Sagna wax ci Sonko mais tey dama am tey il fait trop beau pour ma toog noonu rek ma wan leen ci xale yi xam naa ne ay xale yi ay culotte la ñuy sol comprendre nga américain yi ñoom surtout noir yi waaw ah, xool leen ar ma wan leen ñaari jeeg noir américaine gis ngeen ñaar ñoom artimelo yoo laa may yoo laay may kenn ki yoo laay may kooku xaar leen bu ma dem fële waaw ah, parce que lii da ciy baax gars yi gën leen laaj gën leen partage c'est la liberté gis ngeen fii ay booy ñoo fi nekk yore seen seen skateboard Boy, ñoom lii rek la def parce que dañ ko tal jàngi wuñu defuñu dara wala bu ñu jàngee ba wàcc yore seen skateboard gis nga c'est la liberté quoi gis nga dañ leen di bay ñu ñëw fii waaw gars yi laaj leen tamit 106 cent six personnes quarante huit laaj la gën tay dama len di wan lolou musul gis que nit yu ne ngay gis parce que di ngeen xamne yalla rek mo meuna bind waaw dina sacc wan len ay ay kanam rafet rafet rafet ay xale yu meuna solo xale yu sha allah la len di wan jigen ni nak ngeen profito ngeen xol mode comme yéen bugg len comme yeen ay solo mo len neex ngeen xool américaine ni ñu solo comme ça ngeen xol tendance kii nee je me demande comment les gens peuvent détruire leur carte bleue waaw waaw kay fii ñoom fi ñu dëkk dañ koy defar dañ koy defar ba mu baax gis ngeen gis noonu ak xajam macha allah waaw xaw leen rek fii moom dañ koy defar ba mu rafet fii ñoom fii moom waaw xool leen américain rek xool leen xool moom gis ngeen gis ngeen gis ñuy solo xool leen seen cheveux yi comme ça ngeen am inspiration waaw waaw non fii fii fii fii jéewugo sax xaaral mën na egg fële fi ma bëgg a egg egg guma ko xaaral bu ma dem fële incha allah gars yi gën leen laaj gën leen partagé kañ lay mel ni xool yi ni muy guddee su ma la wanee côté bii gis nga ni muy guddee côté bii tamit ah mën naa dox un kilomètre développement rek ngay gis liggéey ay bi yi ñuy tabax gars yi like leen partagé leen su ma eggee nag il faut que ñu continuer waat wax ci politique bi tuuti wax ci Sonko wax ci Guy Marius Sagna mais tey aussi dama leen bëgg defal un peu de tourisme ngeen xool développement lan mooy développement ñun lu tax ñuy xeex waaw ma wan leen ñun lu tax ñuy ñuy xeex loolu laa leen bëgg wax waaw gis ngeen allah macha allah Brooklyn li ngeen di am foofu xool leen rek.

lu mës a développé lu mës a développé xool leen loolu regardez bien xool leen la mort la mort amul kenn waaw xool leen rek lépp ay ay ay ay store la xool leen yére yi xool leen regardez bien xam nga ñu ngi gis façon dàll yi nekk xool leen dàll yi ana gentleman dàllu Nike yi fii yëpp ay store la fii la ñuy wax Fulton Street. waaye fi ma bëgg dem egg guma ko xaaral bu dem foofu foofu ngeen di gis bu nekk bu ne ngay gis façon jinne façon bu ne ngay gis xam ne yàlla rek mooy buur waaye ñun jigéen ñi amuñu fi xool foofu xool leen ndaamal spanish boobu sama ginnaaw ana gentleman yi ils sont les gentlemen yi laaj leen partagé leen wana guma leen dara nag espace public day am day am parc xaar ma tuuti koo def xaar ma daw parce que feu bi feu bi kii na rouge na gis nga leen façon gis nga tubaab bi ak seen seen scooter waaye temps yi nag vélo électrique moo fi bëri mais Sénégal am na vélo électrique vélo électrique gars yi Sénégal am na vélo électrique fii temps yi Amérique vélo électrique moo fi bëri te liggéey yi dafa bëri boo amee vélo électrique da ngay def da ngay def délivré xool leen beneen tubaab la ñu nekk yor scooter gis nga genre scooter électrique ak gis nga tubaab boobu noonu scooter électrique la dafa am aussi vélo électrique daf fi bëri liggéey yi daf fi bëri boo yore sa sa oto sax bu la neexee nga liggéeyal sa bopp di livré xaalis bu weex tàll mais nag c'est dangereux am na si benn sénégalais ndeysaan bu am accident vélo électrique la yor ñax li mu lay wax ni matu sax deux semaines dafa bëggoon sax ñëw màggal waaye dafa yoroon vélo électrique di dawal am ku ko mbëkk daa di daw noonu la deewee yàlla na ko yàlla yërëm te dëgg naa mi nga ñeenti goos billaahi xaaral ma woon leen gars yi ngeen xool circulation bi brousse li ngeen di am foofu xool leen rek regardez Sénégal kañ lay mel nii ku nekk sa bopp yaa ngi may wax waxu marabu yi a yi ñoom dañ naan la jullil woor rek lañu lay wax mais xool leen macha allah ah business yaa ngi fépp parce ñu ngi la set ñu ngi lal ci ginnaaw ci mbedd mi di jaay mais fii saa yi des fois dañ ciy gis façon bu ne yàlla naka mën a jinne foog ñu wax ci Sonko <laughs> dinañ wax ci Guy Marius Sagna dinañ wax ci Sonko mais balaa ñu ciy wax ma wan leen foofu ma wan leen jeeg boobu di dem ah, waaw ci mooy United States of America Amérique ngeen di am foofu xool leen xool leen moo gis ngeen noonu gis ngeen maanaam ce sont les femmes xool leen ci jéeg yi xool leen ci jéeg américaine yi ana sama gars yi waaye Sénégal yi si kenn dàqu leen waaye jéeg américaine yi dañoo rafet waaye seen jikko baax ko baaxul de ay xool rek waaye géewu ma ci sax bët mooy kenn yii ñoom gëm ak gëm moo wute est-ce que na may dégg waaw la belle vie instant yi moom fekk téléphone tellement boo gis nga nit ñaa ngi nii yor seen seen seen wala ñu toog ci banc noonu regardez ci ñuul yi nit weex ñi boucle li ngeen di am foofu li gars ma egg naa d'ici d'ici dix minutes dinaa egg fi ma jëm foofu nag foofu moom yëf day takkar naa seen waaw waaw gars live bi tey loolu la quoi live bi dama bëgg mu nekk live boo xam ne dañuy wax ci senegal mais aussi dama leen bëgg wanaale tuuti euh, Brooklyn downtown Brooklyn gis nga yëpp ay business L'Amérique sera toujours la première puissance mondiale C'est Brooklyn du downtown de Brooklyn du Manhattan du centre ville New York centre ville New York nous Manhattan centre ville New York Manhattan Brooklyn Brooklyn c'est quartier noir quartier juif parti juif noir ay jiw lañ may doon mais man xattan laa nekkoon démb bu may dem sama rendez-vous bi ma amoon mais jotuma filmé filmé moom man mais dama leen di wan rek sénégalais yu bari gis nga dañuy nekk fii waaye fii sénégalais la may ndóor bëgguma ko wane nag bëgguma wane kanamam mais gis nga sénégalais yu bari dañuy dañuy dañuy dañuy teg seen table ci ci ci jaay xaalis bu weex tàll lañuy ñuy laal xaalis bu weex tàll tàll kii nii Sénégalais la xaar moom dañuy jaay ay parfum affaire yooyu xaalis bu weex tàll waaw kay gars yi xaar ma woon leen genre jib yi ñuy jaay billaahi xaar ma woon xaar ma gis ngeen xool leen gis ngeen façon coono gis ngeen gis ngeen gis ngeen lakk yàqu bi àjjana la su ma leen nee àjjana la rek àjjana xoolal façon yàpp yi rek lii sax mënu ma ko lekk daf maa génn lu billaahi daf maa génn lu xool leen lii gis nga Sénégal kañ ngay mel ni lii àjjana la xool leen toog xar ma woon leen a toog seen ba ginnaaw lii la ngeen xool laaj leen partage gis nga nit ñi toog ñu ci place bi ah? xam ngeen ne lii lii bu ko gis xam ne neex na dafa neex j'espère que gars yi ngi gis lii ku ko gis gars maa ngi li nag ñi nga xam ne ndeysaan dañoo xiif nekk senegal xiif ñu lay wan ci lii te mënoo ci lekk maa ngi jéggalu mais nag foog moo wan maa ngi jéggalu xool leen xool leen xale boobu gis ngeen copp maa ngi jégalu ñu xiif atti maa ngi jégalu di nekk Sénégal fii maa ngi jéglu bu baax waaye xam ngeen ne lii ku ne ku ne Amérique du àjjan man yii daf maa génn ko mënatu ma sax lekk tellement daf maa génn fii benn tey xaw ma ci taw xaw ma la moo taw fii man moom man moom xale xale gaa yi la wax ci dài mình muốn qua gì anh chẹp lấy răng anh rồi lấy răng con cứ gặp con lần đi người lên đi đi tới quên lắm này cô này America America ajan con lên nhí nhưng mà mọc lên như vậy gars yi like leen partagé leen ma leen dëkk bi no I'm not in Africa this is Brooklyn New York Africa we wish kii duma laaj ndax Afrique lañ nekk ma ko Afrique <laughs> Afrique ñooy mel ni ma jaar gis ngeen gars maa ngi jégalu maa ngi jégalu vraiment maa ngi jégalu na ñoo xam ne Sall mi leen di bëgg a rey maa ngi jégalu waaye fi mu ne nii lii ngi sàllit Guys, you're going to be here until when? So Yeah. This steak looks really good. I'm going to be back, for sure. I'll be right back. Ooh, time moom foog fi laay reere incha allah. laa ilaaha illallah gars yi loolu wax foofu gis nga ah ku ne procédé J'ai un problème procédé J'espère que yéen a oh là là là là là là waaw il faut que ma avancer la gars yi loo leen wax like leen partagé leen daf leen di wan dëkk bi daf leen di wax ne Sénégal yéen dund leen Macky Sall nag lii lay dund moom chaque jour ndax saa yu ko neexee ñëw saa yu ko neexee dem Dubaay te bu demee Dubaay Dubaay gën kan moo leen dàq ya, yàq yéen ngeen nekk ci ndóol rek mais xoolal fii dafa am ay place yu rafet nga ñëw rek toog feexlu ñun ñu nekk ci ndóol ah ñoom ñu nekk seen àjjana yéen bu ñu leen di xeexal ngeen ñu xas naan ñu dem leen liggéeyi prix ak ko yomb foofu de xam naa ne 5000 francs nga am ci plate plate bu baax am ceeb ak lépp 10 dollars rek 5000 francs bëri na Sénégal mais fii 10 dollars bu ci dara fii 10 man de steak yooyu incha allah moom laay reere tey gars yi ngeen baal ma nag ngeen baal ma parce que xam naa ne ndeysaan am na nit ñoo xam ne. mënuñu lekk lii gëj nañ ko lekk mais loolu nag mooy Sénégal quoi parce que tamit foog ñu leen koy wan comme ça ngeen xam foog ñu leen koy wan comme ça ngeen xam ne ñun dunduñu ñun bokk ñu ngi dund waa Europe ñu ngi nekk Amérique boo gisee booy boo gisee booy di rey seen bopp ci mbëkk mi ne dañuy dee dañuy dem wala ñu dee rek Barça wala Barça boo gisee voilà genre vélo yi laa yor vélo électrique yi gis nga vélo boobu vélo électrique yi bo qui boy di wax Barça wala Barça ah, parce que li motax li Tu da ngay da ngay amna sax ben restaurant bu bu as bu mu dugg pas restaurant bu mais as est-ce film sax nga xol xol Boy, Tu as ñu wax Barça wala Barça li motax parce que oh chef peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. je vous jure su ma ko Je lekk dama ko yàgg lekk dama dem ba mu sàpp man Je simple man chaque jour damay dem McDonald rek Je mu simple jël sama benn hamburger lekk paragage ngoon si ma Je sama dem supermarché jënd sama ginaar coob mais Je ngay dem ba coob bi dalaa dalay dalay dalay uh, uh, nu mu Je dalay sàpp mais Sénégal ah léegi dégg naa Je bi yëpp a cher wala fii dama dugg ci koñ yi fii sax xumbul fii xumbul dama damay dem ba fële après ma wan leen ngeen xoolal seen bopp ngeen gisoo seen bopp waaw def naa côté yi xaar ma jàpp may dégg voilà léegi ma egg incha allah léegi ma egg su ma eggee fii kon benn Sénégal ma fi ñëwaat bëgg ko seetaan gis nga nga loolu ngeen di nii seen turee

comme il fait beau on mange des frog Ok. Ok, Qui n'est pas frog Les. que café Touba 100 francs café Touba 100 francs ne am na bind ne dafa dafa café ñu ne 400 francs mu ne envie d'un café am envie d'un café ne le café. bu doon def fukki dërëm léegi cent franc nga ne doo ko jël nga ne doo jël nga xam ne Sénégal ndóol la café cent franc sax léegi nit ñi dañuy dañuy hésité pour jënd ko kon léegi café Touba cent franc lay jar gars laaj leen partagé leen ma dugg ci restaurant bi rek vite fait benn restaurant la boo xam ne defoon naa ko gàtt foofu tamit bëri variété pour ngeen xam ne ñun ci àjjana la ñu waxuma la sax Amérique. mais nit ci àjjana dama leen bëgg ci àjjana yi laaj yi partagé na léegi ma egg fu may fu may jëm ah, moom dama leen di wan dëkk Amérique laa leen di wan foo nga def attention parce dañoo bëri histoire ah, dañoo bëri histoire bëgguñu ku leen film ma dugg ci restaurant mu fi damay dugg rek ngeen xool ngeen xool variété damay jënd peese ñu peeseel la nga fay li ngay fay dem sa yoon fruit yaa ngi fi ginaar yaa fi steak yaa fi lépp la xaar ma dugg ci benn restaurant bi laay dugg ci biir restaurant bi laay wan ngeen xool keroog fi Mau fi bisa sampai yang seen bopp ngeen xam ne ñun àjjana lañ nekk xam naa ne sax Sénégal am na nafik de dugg restaurant Ousmane lay ñange gis ngeen boisson jus gis ngeen ya. fruit fruit yaa Thank you. lii fanaan lii laa jëndee kër kër gi xaaral balaa ñuy dàq loolu wax loolu wax <laughs> man maa ngi si jàmm maa ngi dund de yàq la ñuy def américain day yàq américain day yàq et lii du dara lii du dara am na am na boutique am na restaurant yoo xam ne dangay ngay dugg boo xasee fay benn yoon. la neex restaurant yo xam da ngay all you can eat tout ce que vous pouvez manger xam restaurant yi nan la tuddu ah hein? tout ce que vous pouvez manger eh yaa man may def sama live xam nga man ma xool sama live nu koy neex ma koy def comprendre nga ngi ni suma leen je suis chaque jour di politique Ousmane Sonko li, li, li n'est-ce pas France je sais Sénégal mais France est-ce que vous avez loolu France tout ce que vous pouvez manger c'est France all you can eat vous pouvez fay 10 000. Vous avez fait 10 000, vous avez double. Vous dugg gis nga lim la avez fay am day am boisson day am glace boo xasee fay dimi bu la neexee lekk ba fër l'essentiel yóbbu moo am yóbbu xam nga da ngay gis noir yoo xam ne dañu toog di lekk di rey seen bopp loo xalaat ñu fa billaa ku ne fii du àjjana ah ku ne fii du àjjana fan mooy àjjana voilà day xaar ma maanaam construire immeuble yi macha allah te fi mu mën a dajale. Brooklyn la Brooklyn New York. xaaral ma lire commentaire kii nee na ma changé tur bi waaye non dinaa changé dinaa changé. su ma demee ba fële après ñu wax ci poli ñu wax ci Sonko wax ci Guy Marius Sagna. Only can eat waaw kii xam na ko ah am naa France am na fa tout ce que vous pouvez manger boo xasee fay dix mille wala quinze mille. yaay yaay daw boo lekkee ba fër seen yoon nekku ci mais te gars yi dañ ci génn dañ ciy génn parce que xam nañ ne sama genre bu ñu lekkee bu ñu ëppal bu ñu lekkee rek dañuy génn dem suñu mais dañ ci gis noir yoo xam ne dañuy toll ne ñay toog di lekk di lekk di lekk l'essentiel daal mënoo tibb sa plat dem ak dama leen di rek dama leen di wan rek

après naari commencé nañ dox mais Dubaï moo dàq léegi Dubaï moo dàq New York c'est sûr eh mais attention de demoo Las Vegas de boo demee Las Vegas lépp nga fay gis Amérique amul dëkk bu ko dàq amul billaahi gars yi koo xaar nag ma commencé nañ woon nag ci xale tubaab yu baax yi nag ah sama gars yi nag ma woon leen ci xale yi gis ngeen boobu gis ngeen naa moom tubaab boobu man de gisuma sax bu baax Amérique dëkk dàq ko

Amérique mënoo ko teqale dara mu ne la Gambie dafa voilà c'est ça quoi tey moom damay wër après bu ma wëree ba fii circulation bi delluwaat fu ma nekkoon toog ñu continuer waxtaan waxtaan ci euh, Guy Marius wax ci Sénégal ñun nag bu ñu bëggee Sénégal mel na su ko fii ay iPhone lañ ciy jaay Apple la buntu Apple ay iPhone ay ordinateur seen téléphone yaa ngi ci gis ngeen iPod bi ak iPad yaa ngi noonu ci biir la kañ lay mel nii gars yi like leen partage abonné leen tey live bu gudd gudd gudd def live bu gudd laa bëgg a def waaw on a le temps de parler de tout ce qu'on veut gis ngeen auto yi oto yi xaalis bu weex tal la ñuy tax la ñuy gis ngeen oto yi dañu am camion camion restaurant dañ leen doon camion. oh naa ngi fekk. ñu tey rang bi dund sax daa ko ko lekk bu nekk su mooy Amérique xaalis bu weex tal la ñuy liggéey fii laa non américain liggéey rek la xam xoolal camion glace lay glace gelas krem gelas krem gelas peneliti tewan ay hamburger lay jaay hamburger di allah Masya allah Armada ma segera waa

Senegal yaakar ngeen ne dina dina libéré wu wala Macky Sall mo fi dara tok ba ila yow mi di lan ngeen yaakar léegi ñun lan lañu wara a def parce que ñun library dañuy wax rek mais tamit des fois la ñu déglu leen ñun tamit suñu abonné parce que des fois ngeen xamul ñu xamul tay sama ben abonné moo ma xelal mu ne ma Guy Marius Sagna gaay li tax ñu japp ko bëgg ñu mu nekk maire Ziguinchor man loolu sax xalaatuma ko xam nga loolu xalaatu moom kon bu leen yaakaar ne ñun ñoo yar xam-xam bi yëpp waaw ñun dañ leen di des fois ngeen wax ñu lu ñu yaakaar parce que man li may li yëpp xalaatu moon ne gii man li may mën a analyser analyser xalaatu moon ne Guy Marius Sagna loolu tax Macky Sall bëgg ko jàpp six mois parce que bëggul nekk maire bu Ziguinchor waaye léegi ñun loolu est-ce dañ ko war a seetaan ndeysaan xaar moo nekk xale yu rafet fii nag fii moom fii moom fii moom ana ana gentleman ñu bëgg gis xale yu rafet toog leen rek ngay xool fii moom façon jinne bu ne chaque cinq minutes benn jinne romb waaw mais xaar ma toogee ni comme ça ma def live wax ci politique war naa la leen circulation fii mooy Barclays Center Dame Diop war na ko xam léegi xam na ko fii la euh, euh, équipe bu euh, New York équipe basket New York bu ñuy wax New Jersey Jets net net yi fii la new. fii la new basket voilà les gars yi xaar ma lire commentaire yi lan ngeen xam lan ngeen est ce que yaakaar nga ne Guy Marius Sagna Macky Sall da koy tëj wala da koy bàyyi lan la ñu war Sénégal ngir libérer Sénégal xaar ma def nii lan la Sénégal est-ce que dañu rek Macky Sall di ñu ñu gëm Yalla bay ko nguur bi mu forcé yeen dal ubbi leen seen bët ngeen xol ngeen ci xalé yu rafet xam nga lan lañu wara def ki neena billahi am nañu pasta ak pizza rek ñoo gën a siiw comprendre ah. Ah. ndax lan am fa waaw gis ngeen de gis ngeen yi de man dal damay sama téléphone non xol leen xool leen circulation bi jigéen ñi bu dee mode moo leen intéressé ngeen xool américain yi ni ñuy solo gentleman yi bu dee da ngeen bëgg apprécier apprécier américain yi xool leen waaw mais en attendant man ma ma aussi jëm leen tontu sama sama question Sénégal fan la ñu jëm laa bëgg ngeen wax ma ñu na fii ngay ceene souvent mais soo marqué avec les Sénégal on ne mérite pas mieux bi. tukuleur bi ne nañu baye Macky Sall ak Sénégal dedet day yomb Macky duñ ko baye ak Sénégal mu koy yak ëppalé ñu Sénégal ëppalé wuñu lan nañu wara xexé ba Macky Sall jugg fi la bëgg xam est-ce que gëm ngeen ne Macky Sall dina fi juggé gaay laag leen partager leen wax leen ma est-ce que yaakar ngeen ne Sonko dina nek président ki nee brûler Macky <laughs> où sont les blondes dafa leen dank rek dafa leen dank fi mom caméra bi ni mu ko tégué ni di ngeen gis léegi façon xool leen circulation bi rek yéen bu leen wax dara dama ne kii neen nañ dañu taal senegal ñëpp ñàkk est-ce que dañu war a taal senegal ñëpp ñàkk wala est-ce que dañu war a kii nee na Bébé Ndiaye moo fi nekk di saliné Bébé Ndiaye lu mu def lekk bi mu ko woon moo ko jaaxal non Bébé Ndiaye defe naa mi ngi France wala mi ngi Europe kii nee na Marius Sagna c'est la France CFA dégage qui dérange ah loolu tax ñu génne ko non loolu yàgg na ko wax kii nee ma ana blonde benn blonde mais nag ginnaaw rek la leen di wax nag benn taille blonde mu ngi noonu ana ko doon laaj blonde gis ngeen taille fine blonde boobu kii par force ah Italie nga nekk bébé bébé Ndiaye mi ngi Italie ah bébé yi tiitalu ko yooyu ma leen doon wan. Sénégal laa ko doon booy Sénégal yi laa ko doon doon am na benn tiktok buy ñëw kilote la saf am na benn tiktok buy ñëw kilote la saf dama ne dama ne wax leen ma Sénégal nee na fii am am na takk masque am na takk masque kay dañuy takk masque dañuy sol masque xam nga dañuy sol masque kay mais man comme fi ma toog amul kii xaaral ma woon leen tiktok bi ba pare ngeen ko doon ak kilote seen tiktok boobu gars yi amuleen chance nëbb nañ leen tiktok kii nee na kii nee na Sénégal gars yi laaj leen partagé leen laaj leen partagé dañuy waxtaan rek Macky Sall yaakaar ngeen ni dina fi jógee ak Sonko lu mu mel yi léegi dama leen di laaj tekk tekkaarul Sonko bi lool leen ci xam tekk tekkaarul Sonko bi loolu leen ci xam dégg kii naa bul gains ci xale yi bébé man damay xool rek man man ñii jaaxaluñ ma

nee naa leen fii mënoo fi toog te gisoo jinne kii nag mooy première jinne bi ñu won fii mënoo fi toog waa tekk tekkaaral bi loolu leen ci wax kii nee na tekk tekkaaral Ousmane Sonko bi ëpp na nee na tekk tekkaaral Ousmane Sonko bi ëpp na man loolu laa gis de waaye yéen gis ngeen jinne boobu leen romb jomb romb fii léegi kooku mooy première jinne nag ah, boo leen mënee reculer film bi reculer <laughs> xale bi xale bi xale bi tàng na xale yi sax dañu yaakaaroon tey day sedd moo tax ñu sol seen toog leen rek di ngeen xool mode di ngeen xool di ngeen gis lépp lépp ngeen gis di ngeen gis jeeg Macky laa wax nan la ñu war a def ba jëlee ko parce que man fi mu nekk xamatuma lu ma lu ma war a def xamatuma lu ma war a wax xas naa xas naa leen kooku baax na de bébé loo loo gis nga xale bi da xale boobu dama kaa yéex a gis ko suñ ko gis dama koy dama koy ci laa koy jëlee daa ya. non tanguma, tay tay naaju bu mu len nax de tanguma. Fi fi may nuyu xana xanaa xaar ma xool gaa yëpp ay kilo yu sol ay sweater lañu sol mais suma nexe neexee sama ci bi bu ñu ba ci kanam mëna mu ma mais tanguma de bu tàngoon dina tok ci naaj bi kon ma de, kon damay commencé ñax sax makki nan lañu wara war a def ba jëlee ko gisoo waa ji sax sweater la sax gisoo waa ji li mu sol li ma sol la sax ki neena,

nee na ma est-ce que réellement am naa jabar am naa jabar waaye la moo ci nekk aw ma droit wan sama sama abonné yi yu amagul jabar du ma leen wan ci xale yi sama jabar nee naa ko bul seetaan sama laay parce que boo seetaan sama laay di nga yaakaar damay doxante doxaan man damay apprécier Amérique laa nekk yàlla moo ñu bind bind uuru ay nit nga ne duñu xool ci uuru dañuy xool nag ba sàmba di dem ba gars yi toog leen rek gisagu dara gisagu dara man maa ngi sama téléphone à chaque gën leen like gën leen partager ñuy waxtaan di xool circulation bi waaw waaw Bébé Ndiaye ah kii bu baaxul xooluma kanam bi xooluma kanam bi waaye Bébé Ndiaye xanaa góor nga <laughs> Bébé Ndiaye mi ngi naan xale yi baax na <laughs> en tout cas chinois bi romb sànq de kooku de moom jinne la moom waa gars yi wax leen ma ci Macky Sall kii nee na lu tax ngay wax Macky Sall daf fi jóge lu tax ma wax Macky Sall daf jóge parce que Macky Sall parce que Macky Sall ah? ñom duñu xéssal ñom seen train naturel parce que Macky Sall li tax ma du fi juggé parce que Macky sama gaay Macky Sall la waaw ah, dafa am benn gain bu ñu tax sama ñoom du ko filmé parce que Macky Sall ki néna nee femme la dé day day day la ki romb sang té koko fi gëna ñaaw billahi barke rasulilah xaaral nga fam gaay bu taxaw sama ñu ko filmé gis ngeen gis ngeen tamane Macky Sall et eh, kii de moom mu ngi ñëw fii di soppat ñu ah di soppat ñu ko tamane man sol ma mas ah ya tamit ni corona bi am na ben américain lay ne ko fële lay jaar dama ne Macky Sall Macky Sall li tax mané bo ma fi jóge lan moko jox fit muy japp lan moko jox fit muy japp Euh, muy jàpp euh, gars yi la moo ko jox mu jàpp kilifa jàpp euh, Simon tey mu ngi ni jàpp gi Marius Sagna Macky Sall la bëgg wax leen ma Macky Sall lan la bëgg kii nee na Macky Sall a déjà préparé ses résultats non élection yi moom ñàkk nañ ko yàgg na waaw gars yi yéen ngi xool yéen a ngi apprécié ci TikTok man gisuma kanam de ginnaaw rek laa gis yéen a yéen a gis kanam bi nee naa la fii mënoo ko toog Merci Dieu. Dieu a dit on ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas. waaye gis nañ ñaan yi ñii de dañ maa xaw a rëcc en tout cas gars yi xool leen ubbi leen seen bët boo leen ubbi seen bët xale yi dinañ leen romb dama ne dama ne gars yi wax leen ci Macky sàll ak Sonko waa léegi lan ngeen xam tekk-tekk taaru Sonko bi lan moo ko indi gars yi partagé leen like leen partagé leen dama leen di laaj rek la moo indi tekk tekkaaral Ousmane Sonko kii moom boo fi toogee façon nit bu ne moo lay romb billaahi gars yi ngeen xool aussi euh, euh, américains yi daal la ñuy sol ñaar façon daal la ñuy góor góor yi daal la ñuy sol xool leen rek dama ne dama ne Macky Sall waaw da ngeen xoolaale gars yi seen solo seen façon solo dama bëgg rek ngeen wax ma quoi de gars tey moom ci nee na Sonko saa yu waxee coow jug moo tax mu tekk ah loolu tax mu tekk tekkaar Sonko a parlé sur l'argent ah wax na ci ci biir Vincent Niass lan la ci wax roqee wax ma lan la Sonko wax séparation de sa femme nuisette <laughs> wax wax ma Sonko lu mu wax ci ci ci kii wax le ma Sonko lan la wax ci ci euh, ci arrestation bi Marius Sagna dafa jot mu wax ah gars yi benn jékki benn jékki américaine noir américaine xool leen jeeg américaine boobu ana ñu soxla benn ngoog am na benn tubaab tubaab bu sol tubaab bu xool leen boobu kii nee na waaw xool leen tubaab boobu apprécié kii nee na Mister Shake Mister Shake mais aussi pourquoi nga naan kenn waxul nit ñi dañuy wax dañuy wax de comprendre ma li nga bind leerul de xool leen xool leen ci circulation bi laa leen wax kii nee na ma ne bëgg nga jigéen kan moo bañ jigéen <laughs> góor de boo ne ko bëgg jigéen dafa naa xasuloo moom boo ne ko bëgg nga jigéen xasuloo ko non laay euh, kayis tuuti laa seetaan kayis lan la wax wax leen ma yow bëggoo jigéen Ali Mbaye boo bëggul jigéen war nga xoolaat sa bopp de boo bëgg jigéen war nga xoolaat sa bopp man dama leen di wan rek dama leen di divertir dama leen di wan dama leen di divertir parce que tamit damaa wax ba amatuma lu may wax si sama live gars yi laaj leen partage leen gis ngeen ndaw si ndeysaan gis nga mu yor kaanam di dox la femme qui était dafa amoon ko doon jooy lan la doon jooy kii nee na Sénégal yi ñoo war a njëkk changer comportement si rien ne va wax nga dëgg wax nga dëgg mais changer comportement mooy xeex dama bëgg ngeen wax ma Ousmane Sonko lan la wax parce que man gisuma déclaration bi ngeen di wax Ousmane Sonko lan la wax il a dit que c'est injuste que Macky Sall doit savoir qu'il lui reste 4 ans moo 4 mais pas le gis 4 ans mais Sonko un ku mu yab Macky Sall 4 ans faut le dire. Sonko le dire. Sall 4 ans dire. Il faut le ou wala faut le non eh déclaration le dire. déclaration de dire. eh déclaration dire. Il na dafa dire. Il 2020 dafa gul waaw dafa gul dafa gul waa léegi la ma leen laaj tekk tekkaaral bi la moo ko wane waa gars yi partagé leen nag partagé leen boo na bëggee man tam ma toog fi xam nga tey il fait dama waroon génn doxantu maa ngi nii toog di leen wan circulation bi di leen wan mode Amérique bi di leen wan ci jéeg américaine yi di leen wan ci taay ci TikTok yi dama ne Sonko lan moo tax mu tekk tekkaaral est-ce que xalif général moo ne ko bëggatuma nga wax est-ce que dafa def deal est-ce que dafa ndara a sacrifier Guy Marius Sagna waaw ah, kon déclaration bu yàgg la kon kon loolu leer na waaw ah. leer na ne déclaration bu yàgg la mais tekk tekkaaral bi lu ko waral lu ko waral tekk tekkaaral bi la moo ko waral conseil la mais conseil ñuy rey grippe Guy Marius di sacrifier Guy Marius est-ce que tekk tekkaaral bi bu ko defee Macky du yaakaar ne dafa ragal gars yi xool leen euh, jéeg boobu kan moo soxla jéeg américaine benn ngoog dama ne tekk tekkaaral kii nee na Sonko waxagul ci sànq ça ne va pas mais ça ne va pas mooy la mais Sonko tey est-ce que waru leen sax dem tribunal gars yi dem leen di laaj lan moo tax Sonko demul tribunal tey xëy na yéen di ngeen xam lu ma xamul est-ce que dafa am deal ak Serigne Mountakha wala Serigne Mountakha moo ne ko bëggatuma nga wax dara ba dëkk parce que boo waxee dëkk bi day yëngatu. wa legui ñun dañuy tok ñu japp Guy Marius sacrifier ko est-ce que yaakar ngeen ne marche sax dina am marche dina am fi ak euh, fi ak euh, vendredi ok ki nee ma Barthélemy était au tribunal merci lu tax mi nek tribunal Sonko bañ a tribunal ah xam ngeen ko man monsieur Cheikh samay analyse day baax sax jour lan motax tax mën a nekk tribunal Sonko nekk neen du nekk tribunal wax leen ma Sonko fan la ko teg xaaral ma changé vert di leen soleil kii nee na Sonko tamit mënul nekk fépp waaye bu leen sonnal nga naan Sonko mënul nekk fépp Sonko fan la fi nekk fan yi Sonko fan la fi nekk fan yi ba nga naan mënul nekk kii nee na elle ci trop grosse kii moom mi ngi commencé ci commenté ci xale bi am na ñoo xam ne grosse bi moo leen ci neex kii nee na man. loo bëgg ma jox la xale boobu dama ne Sonko Sonko kii nee na Sonko xaw ma sax lu na kii nee na dañ ko waaj jàpp dañ koy waaj jàpp ah buñ ko waaj a jàpp day ragal ah ok ok comme dañ koy waaj a jàpp dafa war a ragal loolu daal ngeen loolu daal ngeen mooy mooy mooy sa tontu xanaa peut-être dafay bañ ñu tuumal ko terrorisme mais buñ ko tuumal waa léegi dama leen laaj Sonko buñ ko jàppee Macky Sall yaakaar ngeen ne sañ na jàppaat Sonko gars yi dama leen di laaj rek Macky Sall sañ na jàppaat Sonko dama leen di laaj est-ce que Macky sañ na jàppaat Sonko loolu laa leen di laaj yaakaaruma ko. yaakaaruma ko ndax doon jema japp Sonko mo yëngal nguura man kay damay ragal ne Sonko khalif bi mo ne ko bul bul bul def dara khalif bi mo ne ko bul def dara man loolu ragal Ramatulaay neena waaw waaw mi ngi ci mi ngi ci la xaar ma sama sax bi la ni koy sax man kenn dañu graw sama sax bi xaar ma longoo ko mu ko longoo su ko longoowul جاي جاي دخل من باجاز ليج امريكا جاي بالن فهمني دمني دمني est tek tekkaaral bi laa bëgg ngeen expliquer ma lan moo tax Guy Marius Sagna lan moo tax Guy Marius Sagna dem tribunal Sonko bañ a dem tribunal xam naa Guy Marius Sagna Barthélemy Diaz lan moo tax Barthélemy lan moo tax dem tribunal Sonko bañ dem tribunal c'est est une stratégie wa explique ma kon ñom dañu bëgg Macky Sall di def ay erreur xeyna est ce que du loolu est ce que son ko bëggul Macky Sall gëna a def erreur comme ça mu ñu song ki neena Macky Sall mi ngi tànku japp ko ah mi ngi si tànku japp ko ok loolu tax mu ragal dégg ki naan ma li ngay dal ko bari dama laacc nga am dama dal ko damay laccé damay laccé la motax tax Barthélemy Dias jëm tund naan ko dem tribunal wala pour songo jar bi Marius Sagna songo dem tribunal dama len di lacc dama len di lacc bi Marius Sagna jarul songo Sonko déplacement dem dem tribunal est-ce que Macky Sall dina japp songo na nga wara a xam ni Sonko du nëpp gars dama len di lacc dama len di lacc debé ñen songo Sonko du nëpp puisque saa kii nee na Sonko est-ce que ñoo ko wër aussi ñoo ko tere Sonko kenn waru ko mën a tere dara Sonko mooy président fi mu nekk nii ki neen les sénégalais doivent sortir pour Guy Marius merci est yaakaar ngeen ne vendredi prochain suuti nee na am nee na dañuy tiir fële over there nee na gaan bi nee nee na dafa am ñuy tiire fële bu ñu reyee Mister Shake nag gaañ bi nee dafa am kuy tiire fële gaañ ma dem filmer wala ma dem filmer wala hi hi say hi to my subscribers ah thank you very much ladies <laughs> gis ngeen TikTok yooyu <laughs> gis ngeen TikTok yi kii nee na dafa am kii tiire fële yàlla bu mu egsi fii <laughs> gars yi gis ngeen sama live bi mu neexee gars yi ñu ngi rayante fële tiktok yi ne nañ leen haay kii nee na Mister Shake demal kër ga am na ñuy tiire fële de ma dem filmer gars yi ma dem filmer wala damay bañ dem foofu ñu dóor ma bal perdu bu sax man tey non yi New York moom temps yi moom gars dañoo dañoo dañoo rakkaaj temps yi rey yi bëri na wuu du ma fa dem boo demee di yow ban ngay filmer dóor la bal bal lañ lay dóor kii nee na ma ma dem Assane Diouf nee na yow Assane bëggoo maa waaye gis nga TikTok yi ma leen wan léegi génération TikTok yii ku leen moytuwul rek lañu gëm waa gars yi wax leen wax leen ci mag Sall wax leen ci Sonko ah discussion bi neex naa discussion bi neex na gars yi nee nañu stratégie la Sonko di def mais dama ne la moo lu tax est-ce que dëgg la est-ce que dëgg la ne Barthélemy mi ngi woon tribunal kii de nee na ñu ngi doon tiiri fële laa ilaha illallah nee na ñu ngi doon tiire fële ñu ngi doon tiire demal filmé wóorul boo demee foofu ñu dóor la bal gars yi américain dañoo américain moom xam lan la boo affaire am boo toppatoowul affaire am toppatoowul sa affaire mais nga filmé ko mu am ay preuve dañ lay dóor bal nangu sa téléphone daw moom. saay bàyyi rek non ko ngeen ne Sonko kii nee na su ma def gisoon police dinaa dem seetaan parce police bi di ñëw ñoom dinañ fekk ñu def ñu daw gis ngeen àdduna de li may waxe fii rek mën nañ ma ko fekk dóor ma bal ma dee moo tax ma ne il faut profiter ragal amul ragal amul xeex leen ngeen libéré Sénégal xeex leen ngeen libéré Sénégal kii nee na léegi ma nga xam loolu nga nga di leen filmer non filmer wu ma leen instant yi instant yi dama dama sama caméra laa teg nii rek ku romb ku romb gis sama caméra laa teg mais am na ci ñu kon yoo xam ne ñu kon yoo xam ne dañuy romb gis seen bopp rek ne la lu tax nga may filmer nga nekk fa di wax ñu dóor la bal avancé américain mom num lay ray mom mo garaaw dem rek ma ngi dégg ben histoire benn waay dafa romb ben way rek waa jël weñ weñ la jël rek dóor ci bop non la déwé sedd guuy amna ko xamni ci Lamborghini la la la nekkoon Lamborghini xam nga Lamborghini auto yi dafa cher waa ci Lamborghini am lañ ko fekk door ko bal mu dé bo démé ci ko door bal xam ko sax iñan rek dafa ko fekk mu nekk ci Lamborghini am mu door ko bal mu dé nga tok deg deg na tay ben ben way dem ray magam magam pharmacien la magam pharmacien la di pikiir nit ñi corona mom nak nee magi day day empoisoner nit day empoisoner nit ñi mu dem kërëm fekk magam fu mu tok mu door ko bal door jabar di bal non la leen ray billahi barke rasulullah américain man de temps sax dama tit wa gaay xol leen xol leen place dama tit magam la fekk mu tok ak jabar mu door ko bal parce que magi daf fi nekk di pikiir di pikiir euh, euh, nit ñi corona poison waaye nañ ñëwaat ci Sénégal nañ ñëwaat ci Sonko lan moo tax tekk tekkaaral Sonko est-ce que Sonko dafa bëgg dugal Macky sàll ba Macky Sall gën a dugg moo tax mu seetaan mu jàpp kilifa mu seetaan ñu jàpp Simon mu seetaan ñu jàpp Barthélemy Macky Sall est-ce que warul muus moom tamit mu xam ne Sonko da koy jéem a piéger ñu xam ne Sonko da koy jéem a piégé des fois nag nga gis ay jigéen yoo xam ne malheureusement ndeysaan dañoo am problème de problème comme jéeroon bi léegi wax leen ci gars yi discussion bi neex na nañu gën a waxtaan est-ce que yéen waaye yéen dama bëgg a xam kan moo nekk Sénégal actuellement est-ce que tey marche bu amee di ngeen génn ak lan moo leen war a mën a génn est-ce que du Sonko rek moo mën a loolu laa bëgg xam man dama yaakaar ne Sonko rek waaw Moussa Camara romb na la léegi kan mooy lan moo romb léegi dama ne dama ne est-ce que Sonko rek moo mën a génne ki neen xale boobu baax na mais yow tey sax affaire yi jaxul tey moom xam xam naa nit ñi dañuy liggéey ba léeg wàccu guñ gars yi laaj leen partagé leen dama ma fen tey dama bëgg ñu waxtaan tey moom yéen a may jox ay information ma wan leen circulation Amérique ah kenaan ci neen bakke yow Assane toogal rek tey sax tey sax affaire bi xam nga fële man damaa tayal fële ma aw ma fu ma toog ma tax mais buntu buntu station bi fële la wala su ma taxawoon nii parce que lii ngeen di gis sama ginnaaw lii kii la mool benn supermarché foofu la xale yi di génne fële porte bële foofu la train bi nekk porte train bi mais nañu wax rek nañu waxtaan nañu continuer waxtaan parce que tamit Sonko moo xaw a jaaxal nit ñi waaw Sonko moo xaw a jaaxal nit ñi Moussa Camara et comme euh, comme toi il fait des lives ah Moussa xaw ma ko liveur bu tudd Moussa Camara nan laa def ba xaw ma ko ah daf ma romb kii nee na Moussa Camara daf ma romb benn laay boobu xameewu ma moom it ah xaw ma ko su ma demee dinaa ko recherche gars yi like leen partagé leen il fait beau aujourd'hui ma wan leen Brooklyn comprendre nga damay kaañoo ah ah dafa duróog moom ah d'accord Barthélemy Diaz lay njëkkee bu noy dama ne est-ce que est-ce que dëgg la que Barthélemy mu ngi mi ngi won tribunal tay. est-ce que c'est vrai est-ce que deug la que bartelim mi ngi won tribunal il est trop marrant wa yéen ni don laaj blonde ben blonde bi non. ah mi ngi won tribunal ah bartelim mi ngi woon waaw lan moo tax dem tribunal Sonko demul tribunal ok lolo ma jaaxal Macky Sall dina baye Guy par force da koy bàyyi billahi barki rasulullah makki ragal la buqat la buqat parce que xam na ne bu jappé bi Mary Sagna marche yi day continuer marche yi day continuer ci neen marche ñu do merci Bart merci man lool lay wax chaque jour lan mo tax nak kilifa démb bañ bañ koy juger lutax tax dem bo wala keneen dem bo nee na Bart lay njëkkee dafa dof Macky Sall

Macky Sall japp nit ñi comme ça nit ñi génn daal di fukk Macky Sall nag dafa muus da leen jàpp di leen toroxal parce que li mu def li mu def Guy Marius Sagna waruñu ko sax may jàpp une semaine dix jours mais c'est pas sérieux dégg kii nag gis nga Rokhaya Macky Sall day sóob Macky Sall day sóob amul fitu tëj Guy Marius Sagna six mois lu tax defu ko tey la moo tax defu ko soob man la tapet la bu rëy a moom décision yi muy jël yëpp dof la kay dof la parce que bu duloon dof du fi sax jéem a nekk nan day jàpp ba euh, euh, Guy Marius ba Barthélemy di dem mais Macky Sall nit la yow xanaa gisul lu ñu ko def marché bi passé mais c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi lu tax lu tax tëj téyewu ko tey

mafia kàcc kàcc Macky Sall loolu la ragal mafia kàcc kon man jour bi man dara perte damay dem ci ay Tounkara ñoom Tounkara ba ñuy wane woon ba ñu tuddee est ce seen bopp wane wuñ seen bopp parce ay dix personnes dafa xam nga ñaati Sénégalais ñoo nekk bii New de ñaan Mister Shake lu que Sénégalais yi xam nañ ne xeex bi du fii xeex bi Sénégal la ñun mafia kàcc-kàcc lañu bu ma waree dem manifestation New York man xam naa ci yéen laa war a dem ak ñu mun dem mais du ma dem ci ay manifestation ñàkk de yoo xam ne sénégalais yi duñu génn kenn du génn dix personnes nekk amul benn sens amul sax caméra bu baax seen téléphone lañ doon filmé ah ñam ñam Tunkara amul sax mais c'est vrai xeebu ma ko liñ def xeebu ma ko ba pare policiers yi ga ba leen baare leen amul effet de surprise amul dara bu njëkk loolu def nañ ko ba pare Macky Sall toroxal lañ ko fii ba pare daaw ci événement yi dañ ko toroxal dem ci consulat ak yooyu ñëpp manifester léegi xeex bi li ci des mooy Sénégal ah nappe bi moo dul yoon lu tax ngeen koy seetaan muy tëj kilifa bàyyi Bougazelli loolu ñàkk fayda la lu tax ngeen koy seetaan mu tëj Simon tëj Guy Marius Sagna bàyyi député trafiquant loolu ñàkk fayda la lu tax nag Sonko ne tek tekkaaral chaque fin du mois vendredi chaque fin du mois Sonko ngeen baal ma yagari yagari dem di signé lan lay signé Sonko lan lay signé dama leen di laaj dama leen di laaj Sonko bu signé wul est-ce que Macky Sall da koy tëj waa gars yi laaj tontu leen ok loolu question bu baax la contrôle judiciaire bi dañu nangu passeport Sonko ne ko il faut que nga ñëw signé. aljuma bu mujj wer bu ne wer bu ne aljuma bu ci mujj da ngay ñew nga signé mais lan motax Sonko dem di signé dama leen di laaj est-ce que normal pour man Sonko tout signé dara dama leen di laaj gaay lan motax Sonko di signé dama ko kenn wax parce que man comprendre pour man lolu ñak fayda la yow nga japp nit ñi ci fay leen mbéj leen ñom sax ñoko ko wax da ngeen ñu mbéj doon leen ñu mbéjaat nga jàpp nit mbéj ko kii ne nag ñu ngi nopp nopp bii au Sénégal ci su baax dama ne dama ne gars yi gars est-ce que yoon la sonkoo dem di signer ajuma bu mujj weer bu nekk dama leen di laaj bu signéwul est-ce que Macky Sall da koy jàpp dama leen di laaj Assane sungguh bu ne Macky Sall signé wu ma ngeen baal ma signé wu ma ndeyam bayaawu ma na nga def dama leen laaj Sonko bu ne Macky Sall Macky signé du ma ndeyam est-ce que Macky da koy jàpp dégg kii naan ma bul dem Sénégal paquetage man damaa ragal paquetage man Sénégal le 15 laa nar a ñëw billahi wallahi taala le 15 septembre au dernier moment lu sama liggéey maa ngi nii su dinaa ko ndax la quinze laa waroon dem démbal la lan ñu woo ma pour sama job am ñu ma war a ma war a def kon su ma demoon du baax loolu nag laa xool xool affaire yu bëri ma ne noonu sax loolu may dem tey su ma demoon du baax tey suba rek dañ maa woo démb dañ maa woo comprendre ki neen temps waaw dégg naa Sénégal dafa tàng mais tawul ah ren ren tawul waaw am na ay génération def naa génération TikTok ay chinois ma wan leen ubbi seen bët ngeen xool ci génération TikTok bi génération TikTok am na soxla génération TikTok xool leen génération TikTok yooyu waaw ñooñu ñii la ñuy wax génération TikTok mooy comme ñu fi romb sànq ma nuyu dama ne dama ne wax leen ma est-ce que Sonko bu ne dootuma émarger est-ce que Macky da koy jàpp. naa def sondage dam leen di laaj sondage laa wax laa def kii nee sa normal kii ay signé pour montrer le bon exemple waaye ban bon exemple ban bon exemple doo ma dimbali nga naan ma bon exemple yow yow kii jàppale di la ridiculiser mel na mooy sa baay mel na mooy sa patron ngay dem di yàggar yàggar naan da ngay signé warul signé ndeyam gars yi ngeen baal ma sama xol dafa tàng sama xol moo tàng tontuwu leen ma de est-ce que bu signé wul Macky da koy jàpp. est-ce que vous signez le marque donc est-ce que c'est normal vous signez amne kune waaw amne kune c'est normal donc vote amne ko voter waaw 1 ki néna do ma woutal ci xalé yi <laughs> ki den dañ koy japp ibrahim ba néna dañ koy japp donc 2 non 1 1 1 1 ben sondage la bëgg xam man tam lool la wax non la wax muy 2 2 1 amnañ 2 non ben oui est-ce que sonko bu signé wul dañ koy japp s'il ne signe pas il va mourir en prison contre 2-2 Il y am na ku ne dañ koy jàpp man nee duñ ko 2-2 2 dañ koy 2 ko dama def sondage 10 personnes rek kii nee le jàpp le gis 3-3 Pape Sec, non kon 3-3 10 rek dañ def 10 dañ ma jox 4 non très bien Assane Diouf non 4-3 non merci Avatar 5-3 Qui nee il doit exiger son préfet mais waxo non waxo waaw Ki neen c'est normalement cinq 4 ben moo ci bu signé wul ki vous bu signé wul dara la justice président non yow tontu woo de waaw kay kii nee na bu signé wul gëw ma mag jàpp ko kon 6-4. gis nga 6-4. 6-4. kii neen ma booy dem senegal bul dem bul tàggoo penda damay tàggoo ba sàmbati ci demba nañ ma jàpp kii Mara Sagna gënu ma te man lan laa fi wax li ma war a jàppee penda man saagawuma Macky Sall penda saagawuma Macky Sall defuma appel à l'insurrection ah defuma appel à l'insurrection kii nee na si si livre tousin pas il va mourir comment ça il va mourir dara du ko ci fekk Sonko bu signéwul dara du ko ci fekk Macky Sall sañ na jàpp Sonko <laughs> xaaral ma defaat sondage boobu comme sondage bu njëkk bi maa gagné xaaral ma defaat sondage bi dama leen di laaj est-ce que Macky Sall sañ na jàpp Sonko tontu woo de Pape Seck est-ce que Macky Sall sañ na jàpp Sonko man noo laa voté man noo laa voté muy un est-ce que Macky Sall sañ na jàpp Sonko daf leen rek tontu leen tontu leen ma est sañ na jàpp Sonko am naa un non. Pape Seck nee muy 2-1 waaw 2-2 Mamou Fall nee na sañ na jàpp Sonko 3 3-2 Papis Fall des na 5 3-2 3-2 pour non dama ne Macky est-ce que Aïda Ndiaye nee na muy 3-3 4-3 Assane Diouf 4-3 Macky non yow waxoo non 5-3. cinq 54 Ibrahima nee na 54 Penda Mboup nee na waaw bii sax au moins bii moom cinq cinq la bii moom 5 cinq la kon am na yéen da ngeen gëm ne Macky Sall sañ na jàpp Sonko ah yéen da ngeen yéex a voté gis nga kii nee na Macky kii nee na non man xam naa ne nooyee ëpp nooyee ëpp parce que sañu ko xam nga lu tax Penda Mboup ma ne lu tax sañu ko waa léegi dama leen di laaj yéen ñiy wax wii bu dee sañ na jàpp Sonko lan moo tax woowul Sonko boobu ba léegi ci affaire Adji Sarr bi Barthélemy septembre la waxoon tey le 7 septembre ah dund gi dafa dama ne xaar la leen benn génération tiktak spanish gars yi apprécié leen xale boobu ndaamal gosaas boobu dama ne ah xale bi tam rafet na de ah, dama ne lan moo tax lan moo tax woowul yéen ñi wax sañ na ko jàpp lu tax woowul Sonko ba léegi ci affaire aj Sarr wala wala waaw kay mais grand chef bu saaga man saaga fan laa fi saaga saagoo ma eh, eh Adja Sow ñëwati na Adja bu mag bi dama leen di laaj dama ne dama ne lan moo tax Macky Sall non non xaaral ma laaj leen lii est que Macky Sall dina woo Sonko ci affaire Adji Sarr On va faire le sondage. Je On va faire le sondage. Est-ce que je vais appeler le tribunal Pour faire une enquête. Je ne suis pas là. Vous êtes tous là Vous êtes là Non, merci. Nous deux. Pourquoi pas 2-1. Non, 3-1. 4-1. 5-1. 6-1. Merci, Rochelle. Vous êtes là Vous n'êtes pas là 6-1. un 3. 7-1. 8-1. Ah, huit deux kon huit benn buub nee na waaw donc huit personnes nee nañu non Macky Sall sañul woo Sonko ci affaire Adji Sarr léegi xaaral ma laaj leen lu tax sañu ko woo lan moo tax sañu ko woo parce que bu ko woowee dëkk bi day tàkk n'est-ce pas yoo yi ñoo ëpp non yi ëpp du ko woo sañu ko woo xam nga moo tax nag moo tax nag Sonko war a jël responsabilité te ça sax Sonko commencé na parce que semaine passée Sonko avocat bindina avocat Sonko bind na ne jox len ma sama passeport kon Sonko am na lu muy waaj ki nee na ma kii yabul Sonko ki nee son Sonko alarme incendie la waaw <laughs> mois de mars dafa ñam merci mois de mars dafa ñam motax ñamé wuko wo en plus ils n'ont pas de preuve merci kon dekk bi tak merci su bëggee dëkk bi tak <laughs> loolu kay mooy ñemewu ko jàpp waa léegi loolu mooy c'est la même chose Sonko bu siñewul ñëwul dara du ko ci fekk Sonko bu si ñëwul mu ne dematuma tribunal dara du ko ci fekk tribunal boobu muy dem wóoru ndax big bi big boobu muy siñe mën nañ ci def benn poudre boo xam ne waa gis ngeen tubaab boobu may naa la gis nga big boobu muy signé sax mën na ci def am na lu nga xam ne mën na ko ci def ci encre bi ci big bi wala feuille bi sax mën nañ ci def benn poudre invisible Sonko laal ko mu nekk genre poison Sonko warul jege police warul sax dem police waaw xaaral ma may leen beneen ndaamal ndaamal ndaamal tubaab gars yi foog ngeen di xool circulation bi foog ngeen di xool circulation bi ngeen apprécier ngeen apprécier boucle voilà kon loolu moo tax ma ne Sonko waa léegi man man man man lan la moom a jaaxal man lan moom a jaaxal li ma jaaxal mooy waa Pastef waxuma Sonko rek sonkoo Sonko rek Pastef la moo tax mu tekk tekkaaram kii nee na Macky Sonko mooy baayam la moo tax du ñu gis Pastef ci dara Jomaay Fay doo ko gis Jomaay Fay doo ko gis doo gis Biram Souley lan moo tax kii nee na man damaa ragal dem Sénégal fenn mbub waaw yaay yaay ragal dem Sénégal xanaa gisoo li dal Cheikh Niass sànq si doon discuté ak sa benn xarit fii ma ne ko mu may wax Cheikh Mboub ma ko Cheikh Mboub xolmaan Cheikh Mboub Cheikh Niass ma ne ko ma ko sawaay Cheikh Niass xeyna heure mo jot de waye man liko dal munuma dal liko dal munuma dal policier arrêté la nga fatti sa carte gis mu nangu sa permis police Sénégal nga nan nga ngay xuloog ah non lol man duma dal bu don man dama koy jox 3000 mu dem ma dem billahi barke rasool laay gën ñu lay ray

parce que boo fa nekkee di xeex dañ lay jàpp yóbbu la commissaire bi ànd ci ñu dóor la nga dee yaay perte te Macky ci mujj dara. lu gaaw gaaw ñu ngi naan non non dafa fàtte woon ay ay médicament am ah ki mu bokkaloon cellule génn nañ ko muy wax naan wii waa ji mu fa nekkoon di laaj ay médicament lu gaaw gaaw ñu ngi jéem wax ne ñoom reyuñu ko ñoom ñoo ko rey mën na am dañ ko dóor ba mu dee mën na am dañ ko dóor ba mu dee wala wala wa ilaa jàpp biñ ko jàpp. stressé ko ba mu dee même buñ ko dóorul ba mu dee ñoom ñoo ko rey bu doon Amérique ñoom ils sont responsables rey du question ne da ngaa jàpp nit ku dóor ko mu dee de même bu dee Cheikh Niass jàpp bi ñu ko jàpp rek mu fanaan fa waru fa woon fanaan ndax carte grise rek waroo fanaan commissariat kon bu bu dee dafa nekk ci foofu carte grise ngeen téye ko commissaire bi dem entraînement bàyyi ko fa ñu war ko jox garabam joxuñu ko garabam mu nekk fa di ñàkk doomam nee na dafa doon ñàkk

teel sa làmmiñ boo ko deful dinañ la dóor rey la te yaay perte man dugg naa bureau commissaire procureur xale bu ndaw maa ngi ko doon nettali sama benn xarit léegi nii sama terrain bi ñu sàcc sama terrain bi ñu sàcc ndaw si ñu war a dem tribunal saa yu ñëwee tribunal du ñëw ma dem ci procureur bi procureur bi yor cas bi mais xale bu ndaw xale bu ndaw kooku leer na maa ko mag mais xooluma sax ci bureau bi la nekk may wax mu may wax mu may coupé di yuuxu billaahi wallaahi taala mais expliqué pare li may expliqué pare guma sax mu coupé di yuuxu mais dama xam ne fii Sénégal la bu ma fa nekkee di jéem a kaas dina ma créer problème dinaa ñàkk sama terrain ba pare mën na ma sax tegal ay yeneen charge billaahi moo tax dama ko bàyyi mu wax ba pare ma noppi wax li may wax daal di pare dem sama yoon après ñu des sa ci juge juge ba nag foofu moom li ma war a wax damay wax dernier jour dama wax sama ba gars yi ñoo ma doon téye après mais nan monsieur le juge mais ndaw si bi 4 quatrième fois ñu koy convoqué mais man je dois voyager hein, je dois voyager nag gars yi naan ma ni policiers yi ñoo ma doon wax <laughs> mais lolu moy Sénégal parce que bo bo fa nekkee di wax juge bi mën na la coller motif daal di la tëj wala nga perte gars yi ñoo fa nek sax di ma calmer juge bi ne ah mais je sais pas hein, da nga war dem da nga war a dem mais lolu man mënu ma ci hein mais ndaw si ñëwul ah. Sénégal boo fa nekkee da ngay xam lu muy doxee boo xamul lu muy doxee billaay barke na sol laay nga sonn waaw kii nee na sàcc kër no senegal Sénégal dóor yi dóor yi non Sénégal il faut que Macky Sall jóge Macky Sall bu fi jógewul Macky Sall bu jógewul senegal dañuy dee waaw man de sama laay fu ne laay génnee baa yéen a ngi xool ci xale yi xool leen ci bi de ngeen rêvé tuuti gis nga sànq am nañ ku ñu doon bal fii à côté am na gars yi dañu doon tiirante fii sama live lépp fa am sànq yóbbu naa leen ci restaurant yi restaurant ba ngeen xool fii àjjana la Adja Sow seen dëkk boobu seen dëkk boobu ku fa amul ku bokkul APR waaye gars yi loolu wax ci Fatoumata Ndiaye Fatoumata de Aïssatou Diop Fall la ko jàpp xas ko ba mu ràpp ne ko yow dañ laa jël ne ko xoolal ku la xool Fatoumata njaay bii bu bees bii ak cheveux mag yooyu wuute nag Fatoumata Ndiaye bu ñu xamoon mais da kaa xas sa xas ba mu rab Fatou Bota Fouta Tampi mu dem ci Leral TV Kumba Sow jàpp ko xas ko ba mu rab Fatou Mata Fouta Tampi jaratul dara kii daf ko jàpp xas ko léegi mu commencé di wax non ba léegi Fouta Tampi laa wax ba léegi Fouta Tampi laa wax ma ne ko ah léegi Fouta Tampi ngay waxaat encore yow de Macky Sall dootu la jox dërëm au lieu mu jàpp fi mu jàpp Fatou Mata Fouta Tampi daf Aïssatou Diop Fall daf ko xas. ba mu commencé waat xas Macky na nee na Fouta Tampi Fouta maa yi nee na ko tey na tey la ko gën a mën a wax gars yi laaj leen partagé leen kii nee na partagé leen gars yi mais dootul laal dara wax na ko ko Fatou kii wax na ko ko nee na ko utilise nañ la yàq nañ la te dootuñu la jox dara Fatou Mata Fouta Tampi dootuñu ko jox dërëm mu naan affaire laa ma a bokk xam naa kii moom a recevoir ah Mansour Faye ñàkk fayda ñun ban Sénégal lañ nekk Mansour Faye di di di recevoir Fatoumata Fouta président de la République Macky Sall ñàkk fayda di recevoir Fatoumata Fouta Tam waa APR si bopp ñoo génn di naqaru lool Adama Fall moo génn mu ne kii ko yóbbu ci Macky Sall kii ko yóbbu ñoom xam nañ ki ko yóbbu ci Macky Sall mais waa mais ñu senegal fan lañu jëm yéen Macky Sall doolu wax ak moom gars yi doolu wax président bii ak a bëgg nguur yow looy jéem a recevoir Fatoumata Fouta yow sa nguur jeex na gëmal yàlla elle a perdu baa doole tigi tigi tigi mooy pa Adama Fall génn na wax ñaari yoon te dara fekk ko ci dara fekk ko ci porté wuñ ko plainte waxuñu ko mu noppi

adiaso ce président bu ñàkk fayda bi bu wul loon du fi nekk di jema jënd wa Fouta Tampi moom mo la gëna xamné dafa paré di tejj ay nit ci ay tejj yu ñak fayda yoo xam da leen di bay par force bu dé limi woté mi ngi ci mom mardi prochain na téye Guy Marius Sagna paré na la la wax bu dé limi woté la moo tax la moo tax jàppal Guy Marius Sagna du président président bo xamné amul benn doole waa France sax dañ ko fiy bàyyi léegi di dem Touba ah waa France dañ fi bàyyi Macky Sall dem Touba directement ci ci président bi xalif général mooy président Cheikh Bass Abdou Khadre mooy mini premier ministre ah Cheikh Abdou Cheikh mooy premier ministre bu am doole nag Macky Sall xam la la gouverneur du Sénégal léegi waa Total sax dañuy dem Touba di yóbbu addiya ambassade France nee na ko dootuma def dara te tàgguwuma la loolu kay mooy <laughs> loolu a président ambassade de France ambassadeur France c'est Sénégal la président nga il ce qui s'est passé au Sénégal avec tous ces morts là si Sénégal si le Sénégal n'était pas une démocratie il y aurait plusieurs morts Macky Sall loolu wax de si le Sénégal n'était pas une démocratie kon moom ay rey nit moo nekk ci bopp bi nee naa la loolu doo fi am doo fi amaat Macky Sall moo ñàkk jom Macky Sall moo ñàkk jom moom président war na wax loolu Sénégal bu dul woon démocratie dee day gën a bëri Pape Alé li moo tax mu ne 500 personnes dee génnewul Macky Sall coalition Yewwi Askan Wi duñu tous duñu tous. mom la lay wax ati melo ñom lutax Sonko demul tribunal tay, xeyna Sonko dafa bëgg duggal mak Sonko dafa bëgg mak Sall jàpp Guy Marius parce que mak amul xel mak bu amoon xel du jàpp Guy Marius Sagna parce que Guy Marius Sagna boo ko jàppee dëkk bi dafa yëngatu te ñëpp xam bu jëkk bi yëngato da ngay daw lolo tax Barthélemy Dias dem tribunal xam nga lu tax Barthélemy dem tribunal pour wax Macky xelal ki do ko japp lu tax Macky dellu lu tax Macky lu tax jàpp ko tey yow ke nit ki boo koy jàpp looy xaar ba mardi prochain parce que juge bi foog dañ ko woo ne ko saay juge bi dañ ko woo ne ko eh saay comme Barthélemy mi ngi mi ngi tribunal ah ba pare waa FRAPP yëpp dañoo génn tapet la vrai tapet mooy Macky Sall mardi prochain di Marius Sagna dañ koy bàyyi Macky xalaatul sax toful sax xaw ma daf ko bëgg xañ Ziguinchor li Guy Marius Sagna wax dafa bëgg nekk maire Ziguinchor moo ko tiital Macky Sall ñemewul ñemewul téye Guy Marius Sagna billaahi wallaahi taalaahi bu ko téye dina ko rëcc nit nag gaa ngeen baal fii dañ fi doon tiire léegi sànq dañ fi doon tiire gis nga police bi ñu taxaw ñu ngi taxaw dafa am kuñ fi kuñ fi doon tiire xam naa loolu tax ñu ñëw gis nga Macky Sall gis nga booy jaay géeree dangay dem jusqu'au bout waaye jàpp la tey bàyyi la suba il faut tàppet yooyu mooy lan parce que day jéem a xool bu jàppee kenn waxul rek mu téye la parce que jàpp ne Simon kenn waxul jàpp ne kilifa kenn waxul mu yaakaar ne dafa am doole lu tax ba mu jàppee Assane Diouf ñu bàyyi ko lu tax ñu bàyyi Assane Diouf naan ay sursis yeeg ma xamul booy jaay géer da jaay géeree yow Martin da ngay pourquoi danga bëgg natt sa doole Macky Sall dafa bëgg natt doole dafa bëgg fayu am na ñu bëri ñu koy wax nee nañ dafa bëgg fayu waa xalaat TV nee na nekk fa di guuxe leex di mattu di menacer nit ñi nee lu fi amone doot fi amat jappal Guy ma Sagna nga xol jappal Guy Marius Sagna nga xol ndax li fi am dina fi amat wala do fi amat wala ñu dem ba 2024 2024 nga ne da ngay def 3e mandat han ah? 2024 nga ne def 3e mandat di nga xam ndax li fi am dina fi amat yo gendarme yi ñoo ñëk njëkk gendarme yi ñoo ñëk njëkk capitaine Touré kenn la rek ci gendarme kenn la rek police gendarme yi génné yi gene uh, audio uh, video vidéo Bougazelli ñooñu est-ce que Macky Sall la ñu àndal gendarme yi génnee vidéo Bougazelli est-ce que Macky Sall la ñu àndal budul gendarme waa tribunal parce que vidéo boobu tribunal moo ko yor ak gendarme budul tribunal di gendarmerie ñooñu est-ce que Sall la ñu àndal ànduñoo Macky Sall billaay barke Rasul bu dof dof loo bu dof dof loo xam ne lan moo koy dal li dal président Moïse président Haïti mu fekk la ci pale ba ah boobu ana sa police ana sa gendarme sa gendarmerie am na kuy toog fii ñu fekk la sa pale ba daal di la dóor bal loolu loolu moo ko dara daal te yàlla xam na ne ñun yéne wuñ ko lool waaye nak do tok fi ne maam moom Sénégal jël xaalis bi di ko jox Fatoumata fut Tampi jigen bu torox jigen bu xamné ne mënuloon sax fay location té yow né nga affaire nga né nga affaire bu mag nga affaire bu mag ba paré 2017 ba légui bor auto mëno ko fay affaire nga am arrière location ba ñu porté la plainte nga xamné ne Macky Sall baxul Macky Sall wa affaire sax defalul len parce que pas vous avez bi bu la Sall mënul fay location 2017 vous ko fay pour nga fay il faut nga yuuxu vous Tampi Fouta Tampi Fouta Tampi ñoom ñu vous avez pour vous Fouta Tampi ñu vous la gis ngeen vous avez leen ci génération TikTok ngeen vous avez xol comme ça live bi vous Comme ça, vous avez dégg waaw Vous avez leen circulation vous avez vous avez vous avez dama ne Fatoumata Fouta Tampi du gor bu mag sàll liggéeyoon dina mën a fay location dina mën a fay boru 2017 mais il faut que mu yuuxu yuuxu yuuxu jaay ngoram trahir Akhenaton ba tey Akhenaton Thierno Bocoum mu ngi nii di ko porte plainte Thierno Bocoum bi nag ku la lu la nit wax te moom waxul la ne dafa nduru ne ci mag Sall la bokk Fatoumata Fouta Tampi moo génn mu ne Thierno Bocoum jox nañ ko 200 millions. te moom xam na ki ko jox deux cent millions yi loolu danga ngeen yaakaar ne ay fen la ñu naan Fatoumata génnaat na di wax non non maa ngi baalu ak Thierno Bocoum comme ni ko Dambodj waxee bu dee yow ci opposition bi nga bokk da nga war a def luy dooleel opposition da nga waroon porter plainte bi da nga ko waroon dem jusqu'au bout ñu xool ndax APR dinañ jàpp Fatoumata Fouta Tampi ndax Fatoumata Fouta Tampi ba mu porter plainte Baye dañoo jàpp Baye Niass léegi Thierno Bocoum ba nga porté porté plainte da nga waroon porté plainte Fatoumata ñu xool ndax dinañ ko jàpp mais Thierno Bocoum dafa mel ne ci Macky Sall la bokk nañu waxante dëgg may wax mu naan day porté plainte Akhenaton parce que Akhenaton nee na ko yaa rey sa doom yaa ko sacrifié magie noire sacrifice nga def sa doom parce que sa doom dañ ne xale bu ndaw xaw ma mois la am xaw ma 6 dugg ci force bu dee noonu la noonu la demee en tout benn accident ci biir këram ah? dégg kii ma xanaa danga ngaa am yëpp yóbbu ma de maa ngi sant yàlla bu baax lu tax nga ne dama am ah, yëpp wala xale boobu rafetul <laughs> non ginnaaw bi rek laa gis gisuma kanam gi de <laughs> gars yi ngeen baal ma <laughs> forme bi laa gis ah forme bi baax na tay fin la de dama ni dama ni Macky Sall wax leen ak moom Adja Sow wax leen ak seen président bi seen président bi muusul seen président bi amul xel seen président bi dafa gaaw a dégg gui Guy Marius dafa bëgg nek maire Ziguinchor rek mu tiit ne da koy tëj seen président bi fi lañ ko wax bu japp Sonko ci affaire Adji Sarr loolu amuloo ci intérêt mu dëgër bop tay motax tax nguuram yëngatu nekatul président les gouverneur la président moy moy moy xalif général xalif général moy président Bass Abdou Khader moy premier ministre ambassade France dem nañu jébalu Macky Sall billaay barki rasul lay day sonnal bop Ray bopam xam nga Adja so, xam la mo dara dem la mo dara am mak Sall il risque de mourir jeune ou bien il risque il risque de passer le restant de sa vie en prison lu ko fi jàkk gis nga nit lepp looy def mu am risque gis nga nit gis nga Adja Sow nit lepp lu muy def da nga wara peser risque risque bu dé 50 50 la 50% de chance mën naa gagné nekk président de forcing ray nit yu bari nit yu bari dé ma tok benen 50% pour yi mën na perte comme ni amone 8 mars am mën nañ ma ray sax wala ñu japp nit bo muusee bu nek 50 50 da ngay def li nga xamné yow di nga sauver sa bop di nga sauver Marème fay Sall di nga sauver Amadou Sall ak sa dom jigen ak sa rak Aliou Sall mais nit di risqué lo xamné 16 millions d'habitants yow lèr dana la ci 16 millions d'habitants xëy na 4 millions ñoo ànd ak yow te 4 millions yi tax ñu ànd ak yow man maa baax sax di wax 4 millions man maa baax di wax 4 millions parce que APR matuñu 4 millions APR yi nga xam ne gëm nañu Macky Sall léegi léegi léegi gis si seen bopp matuñu 4 millions gars yi nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg ndax Sénégal mën na mi mi ngi rey nit ñi vie chère baa ngi rey nit ñi xam nga APR APR ñan ñoo ànd ak ab Macky Sall ñu mel ne ñoom ajaasoo ñi nga xam ne dañ cee gis bopp dañ cee gis seen bopp soit am nañu cent député

ak APR léegi du benn ndax gis nañu Adama Fall génn ay preuve yoo xam ne dafa dooleel Pastef Adama Fall moo génne preuve yoo xam ne dafa delloo la Fouta Tamp bu duloon Adama Fall ci Baye Niass mi ngi ci prison ndax Baye Niass amuloon ay preuve Adama Fall moo génn preuve yi ne Fatoumata Fouta Tamp jox nañ ko xaalis comprendre kon APR Macky Sall moo war a xam ne nguur doo forcé xam nga nguur doo forcé boo forcé mën nañ la ci rey ku bëgg Macky Sall loolu nga koy wax Adja Sow boo leen bëggee seen bopp wax leen Macky mu bu teggi tànk parce que senegal bu tàkkee ñëpp ay perte kër yëpp ay tàkk senegal bu tàkkee du kër APR rek ay tàkk de kër yëpp ay tàkk man mii sax sama sama kër papa boobu mën na tàkk parce que dëkk bu amatul jàmm moom amatul jàmm dem leen Syrie dem leen ngeen xool li am Syrie dem len siri ngeen xol amul ben keur Damas amna na bo xamne amul ben keur bo xamne bombu dalu fa billahi amul ben keur bo xamne bombu dalu fa amul dëkk bu yaxo day yaq 1 million de de de de de, de Syriens il y a 2 ans 3 ans ñu ngi Germany Angleterre feulé Allemagne parce que wa Allemagne ñoleen ñoleen ñoleen fat Allemagne rek la wax de Allemagne rek Allemagne rek 1 million de Syriens daw nañu dem Allemagne té pourtant ñooñu ay ay ay ay classe bourgeoise lo ñu am xaalis ay docteur, ñu ci woon ay professeur ay milliardaire ay ay multimillionnaire ay milliardaire ñu ngi ci mais dañu obligé ñu daw parce que seen dëkk dafa yàqu xol leen Liban économie bi yàqu na ndax dirigeants yu bon donc yéen ñi di encouragé Macky vous n'êtes pas des patriotes te muusu leen ndax yàgg yàgg yàgg deux ans yàgg yàgg yàgg Macky Sall deux ans lay def ci nguur bi deux ans et demi deux te te képp ku fi nekk di jàppale Macky Sall ñun xam nañ leen bu baax li am Guinée moo ndara am Sénégal dinañu nangu seen kër dinañ nangu seen compte bancaire dinañ nangu seen xaalis yéen a ko tey yéen ko tey dinañ nangu seen kër dinañ nangu seen xaalis dinañ nangu seen compte bancaire gis nga gis nga Dumbuya nu mu def gis nga Dumbuya nu mu def Dumbuya dafa woo ministre yi mu nangu seen passeport dafa mën a ministre seen compte bancaire bu téye ko dem seen kër yi gas visiter xool képp ku am xaalis ñu nangu ko nangu seen kër yi waa APR muus leen muus leen Sénégal bu takkee ñëppay perte alors que Macky Sall bu demee yéen li ngeen jot a am di ngeen ko téye ndax fii affaire fayantu du fi am képp ku bàyyi Macky Sall kenn du la topp Thierno Alassane Sall kenn du ko laal ndax dafa teel a génn. Moussa Diop kenn du ko laal parce que dafa teel a génn Moustapha Cissé Lo kenn du ko laal parce que dafa teel a génn ñaañi Sakho kenn du ko laal parce que dafa génn dañ ko dàq képp ku ñu dàq duñu kenn du la laal mais ñi fa nekk di jàppale Macky Sall ñi fa nekk di jàppale Macky Sall Aliou Ngouille Ndiaye dàq nañ la Aliou Ngouille Ndiaye nañ la mais yaa ngi jàppale Macky Sall ba léegi Mimi Touré dàq nañ la waaye yaa ngi jàppale Macky Sall ba léegi kan wax leen ma kan kan lañ dàqat Amadou Ba dak nañ la way ya nga jàppale makissal ba léegi yeen ñi ñep yeen ñi ñep yeen nga gis makissal muy jalgati ngeen nopi makissal mi ngi japp kilifa mais yeen ni ñu waxante deug Adja so lo gumba gumba gumba xamne bu gazel il est coupable lo gumba gumba lo faral makissal faral makissal xamne ni bu ku film, dañ ko filmer mune wuy yakuna ba pare di corrompre gendarme

sëñ Babacar Sy mi ngi gis ñoom ñëpp ñu ngi gis Bougazelli mi ngi këram kenn jàpp ko sëñ Mountakha sëñ Babacar Sy ak sëriñ Laayeen sëriñ Canaba yi ñu ngi gis ah député yoo xam dañ leen jàpp il faut que ñëpp wax Bouba Ndour wax ñu koy ñu leen di doog ministre de la justice doog a dugal pour ñu dindi seen immunité man ba Bouba Ndour waxee rek Bouba Ndour ba mu waxee laa xam ne léegi ministère ministre de la justice dugal du question de Bouba Ndour dafa am doole de Sénégal il faut ngeen yeewu Bouba amul doole boobu de wax rek deux jours après ministère de la justice Bouba Ndour dafa am information magam Youssou Ndour dafa am information Youssou Ndour dafa am délai Youssou Ndour bëgg na fu mu toog ñu ne ah jàkkaarloo de ñëpp wax nañu dindi député yi kenn dindiwul seen immunité waaye Bouba Ndour ba mu waxee rek. deux jours après ministère de la justice ministre de la justice daal di wax na euh, Moustapha Niass dindi immunité parce que ñoom Bouba Ndour dañu am ay information ñoom ci système bi la ñu bokk xëy na Youssou Ndour woo na Bouba ne ko Bouba bi ministère de la justice léegi mu dindi léegi mu dindi immunité mën nga ci wax mën nga ci wax ci jàkkaarloo noonu lay demee Bouba Ndour bëreet la waroon wax commencement bi la waroon wax mais doo toog deux semaines trois semaines mu leer na lii mooy am ñëpp a ko xam kan moo xamul woon ne député yi dañ leen di dindi seen immunité waxuma ko fi ñooñu dañuy dindi seen immunité waxuma la dindi immunité dañ leen di jàpp par force lu dee fàng kenn du ko jeex même Bougazelli day delluwaat kaso maa leen ko wax nañ dem Bougazelli day delluwaat waaw dama ne même Bougazelli gars lépp lu leen wax day vérifier day am. ñoom Bouba Ndour dañu yaakaar ñoo ñu gën a muus Bouba Ndour fan la fan la amee doole boobu wax rek deux jours après deux jours après kañ la waxoon vendredi démb le ministre te vendredi la wax samedi dimanche lundi mardi mercredi 4 jours après ministère de la justice bind leen ils ont tout toutes les informations Youssou c'est l'homme le plus informé du Sénégal ou bien il fait partie des hommes les plus informés du Sénégal parce que télévision yooyu la yor ba pare dafa jege Macky Sall

ay député def 31 mariages passeport diplomatique nga nekk fa na non ils sont pas coupables Abdou Mbow Abdou dem ci Maimouna Ndour Faye Abdou Mbow dem ci Maimouna Ndour Faye naan ko non non est que dañ ko àcc ba pare et vraiment ay Macky Sall ay cuune ñoo ko wër ay cuune moom li mu waroon def sax mooy na bañ a jàpp kilifa sax. bañ a jàpp député yi sax bu boobaa sax dina tane te nga jàpp li ñuy wax ku ma am ndey ku ma amul ndey loo xam ne tôt ou tard da koy dem bu gazel yi yàgg-yàgg da nga koy tëj waaw doo ko tëj léegi coow li jeex tant que tëju ko coow li du jeex te te opposition lii rek la bëgg Macky Sall cuune la Macky Sall vrai cuune la ñu ko war ay tapet lañu parce que ñemewuñu ko wax fi mu nekk képp ku dem ci Macky ne ko Macky di mari mi bàyyi ko képp ku dem ci Macky Sall ne ku bàyyil Guy Marius Sagna Macky Sall lay dàq Macky Sall nilaar la nilaar du nilaar sax nilaar il est un nilaar du nilaar de dañ koy def comme Assane Diouf ni mu koy waxee nilaar ni ni nilaar la nilaar mais yow nan ngay nan ngay bàyyee Bougazelli buy circuler yow xam nga ne tôt ou tard da koy jàppaat kan moo fi gëmul ne Bougazelli du dellu kaso même bu dee sax day dellu kaso 4 mois yëfi sedd sax nga bàyyi ko mais oh, dina delluwaat. par force day delluwaat so parce que tant que delluwaatul day jox ko opposition bi doole Guy Marius Sagna tant que bàyyiwuloo ko da ngay jox opposition bi doole parce que opposition bi fi mu nekk amatul benn inspiration opposition boobu mënatuloo marche mënatuloo Sonko waxatul mais Macky Sall cuune bi mu cuune moom moo leen di jox doole jàpp Guy Marius Sagna ban njëriñ la am yow élection Casamance boo ko bëggee sàcc sàcc ko Ziguinchor

gars yi nag ñoo fiy nekk di ko tagg ay Pape Alé Niang naan il est fort oh non c'est un stratège oh non Ablaye Wade moo ko formé xamul tous vrai cuune mooy Macky Sall parce que bu dul woon cuune du affaire Adji Sarr sax dugal baaraam loolu wax naa ko waxati ko affaire Adji Sarr Macky Sall bu dul woon cuune du ci dugal baaraam mais xool leen ñaata erreur na ci def def benn erreur bëgg rectifier erreur boobu defaat beneen erreur. on ne rectifie pas, on rectifie pas une erreur par une plus grosse erreur. On ne rectifie pas une erreur par une plus grosse erreur. La première erreur, convoquer Sonko, qui est un député, qui dit non, je ne vais pas, euh, euh, euh comment dirais répondre à cette euh, euh, invitation de la gendarmerie, cette convocation de la gendarmerie, parce qu'il en avait le droit. Xale yi génn protéger ko nga def force ñëw foofu police ba ñu door fa benn policier brique mu xam le première erreur la nga reculer yo ya reculer première défaite ba tu fais ça. man di conseil nangul défaite nga bàyyi Moussa. mais mu dëgër le Sonko piégé ko il ko dindi sama immunité Sonko dafa parce que Sonko au moins deux semaines Macky Sall pour mu immunité semaine immunité Sonko dina deux semaines deux semaines Sonko star au niveau africain au niveau mondial ñëpp commencé braquer caméra yi Sénégal foofu laa waxoon Macky Sall tomber tombé ci piège parce que Sonko du répondre ci immunité bi du répondre waxoon naa Macky bul bul bul Sonko da lay piégé erreur mu defaat une erreur mu dindi immunité quand même ba mu dindee immunité bi sax c'était pas trop tard ba léegi c'était pas trop tard ci laa Macky comme léegi egsi nga ba fii maasaleel maaseleel mu mel ne da koy woo mais doo ko woo nga bàyyi Sonko ci biir rek comme li am lii lii comme li am lii xam nga instant bi téye nañu passeport diplomate sonkoo ñëpp ngi xaar ndax day woo wala du woo Macky Sall noonu la waroon def bu ko mus a woo parce que boo ko woowee dëkk bi tàkk loolu laa wax Macky comme instant yi rek bul woo Sonko tribunal ak Adji Sarr bu ko sax woo bul sax woo Sonko moom kese muy toog ak juge juge. loolu rek mën na taal réew mi billaahi bu ko woo bul woo Sonko ci affaire Adji Sarr bàyyi mu set loolu laa ko digaloon ana ay conseillers am monsieur da leen gën a ay gënuma leen ay loolu loolu loolu ñëpp ko war a xam ñëpp war a xam ne Sonko Macky Sall woo looy jéem a détruire koo xam ne yàqalu la Sonko yàqalu la yow sa troisième mandat dafa leeroon looy jéem a détruire koo xam ne yàqalu la dara 15 pour cent rek la amoon monsieur 15 pour cent monsieur plus fort reste. loolu ngeen koy ñaawale mais kenn mënu ko conseiller dara ba mu dugg ci bopp bi ndax soxor ak iñaan pour gën a wóoral troisième mandat yow lu wóor ba pare loo ciy wóoral loo xam ne nekk na quatre-vingt-dix pour cent mais non non Macky pour moom cent pour cent la war a naa tëj Sonko moo taxit mu defaat beneen erreur xale yi génn treize morts ñëpp daw mu mu dem ñaani sëñ Mountakha bu du loolu ah.

tubaab yi ba ñu nekkee Afrique dañu yaakaaroon tubaab yi du ñu dee tubaab yi ay yàlla lañu tubaab bu feebaree sax dañ ko daan làq colon yi tubaab bu feebaree sax dañ ko daan làq musuñu gis tubaab bu lafañ musuñu gis tubaab bu gumba tubaab yu gumba yi daañu indi Afrique musuñu gis tubaab bu lafañ tubaab bu deewee duñ leen ko wan dañ koy rawale yóbbu ko France walla ñu suul ko noir yi dañu yaakaaroon ne tubaab du feebar tubaab du dee ñu loolu lañ foogoon tirailleurs tirailleurs yi bañ leen jëlee ñu dem guerre ñu gis tubaab yi di daw it Hitler jàpp leen di leen ci faay ñuy daw ñu gis leen ñuy dee ñii seen tànk dagg ci lañ ne ah kon ñii dañuy nàcc comme ñun Macky Sall nag loolu la senegal yi xam dañuy dem ba ci biir ne ah kon Macky nekk te lu mu fi nekk di tiitalaate di tëjaate nekk te la nekk te buxat bu mag la Macky Sall pense qu'il est immortel waaw dañ ne ah kon nekk te buxat la nekk te ñoom ab dumbaw seen làmmiñ yu rëy yi nekk te ay buxat lañu. nekkate Birima Ndiaye li muy nekk fi di yuuxu Sonko dina toog Adji Sarr dina toog juge Samba Sall toog ñu posé ko question mu répondre Birima Ndiaye loolu daf di yuuxu Maître El Hadji Diouf ah xaar leen rek ñu demee ba ci biir yuuxu dina jëbe dina jëb fu fu fu ngeen ko ñu nekk di yuuxu di tëb di dal waaye ba yëf amee kër yi di tàkk dañoo daw Birima Ndiaye dañoo taal këram rafet wuñu ko maître El a Diouf dañoo taal këram rafet lañu ñu ko anuñu ba ñu taalee seen kër wax est ce que wax nañu dañu bàyyi ba yëpp ñu sedd ñu commencé génn di sóob Birima Ndiaye dafa daw fële la dem Dubaay moom la bu bosam feeñ ministre yi ñu ngi ci hôtel yi cinq étoiles di ndaataatala non ndaataatala foofu parce que instant yi ñu ngi doon côte côté dañoo tiitoon ñoo yee ci ñoom Abdou Mbow ñoom ñëpp di daw daw làqatu Macky Sall nag loolu dafa nekk ci mémoire collective des sénégalais sénégalais duñ ko fàtte mukk xam nañ ne nekk te Macky Sall buqat la Moustapha Diakhaté sax génn na ba ne Macky sax bàyyi woon na Macky Macky demoon na ba bàyyi ñu jël benn président de transition Moustapha daf ñu waroon wax tur bi am na ku ñu jëloon ne Macky yow pare nga léegi nañ jël kii mu nekk président yow moom lemal lemal sa bagage nga daw kooku nag moo bëgg ñëwaat tey ne dañuy tiital bëgg do defaraat doole léegi nan lay defaree doole dof la Macky Sall dof la yo amo dara noy defay sa dole moy di jàpp xex kat yi ngay jàpp xex kat kilifa Simon ñana ma frap Macky Sall amul xel yow ñi ñoy xex kat yi ñi ñoy def marché ñi ñoy genn nit ñi ñi rek ñoo mëna déplacer Barthélémy Macky Sall du nit il est fou motax mardi prochain bu jàppee Guy Marius Sagna nag xam leen ne nag Macky Sall nag dof bi may wax ci moom dof bi may wax man dama ne il est fou moom man ngaa parce que pouvoir pouvoir day dofloo nit surtout nag nit ku ñuul gis nga nguur day dofloo nit mais Macky Sall bu jàppee Guy Marius Sagna mardi mu tëj ko 6 mois waxuma sax il 6 mois sax bu ñu ko tëjee surtout nag 6 xam leen ne nag kii nag. pare na nag pour dëkk bi tàkk kii nag pare na pour dëkk bi tàkk yow 2021 sax jeexagul nga bëgg taalaat réew bi xanaa du ci 2021 bi lañ leen ci faay noq leen ñuus leen ñu daw xanaa du 2021 gars yi wax leen ma damaa juum wala maa juum wala yaa juum comme ni ko papa Alé Niang di waxee ah eh faut respecter les gens comme ni ko booy moom di waxee ci ci ci ci ci ci ci ci euh, euh, euh, zaal zaal yee bay xaw ma zaal Y bay

xam leen ne boo ma moytuwul dëkk bi tàkk te Macky Sall gis nga man maa wootee radicalisation maa ne layam layam yi jeex na Pape Alé layam jeex na man maa ne xalaat TV lemma lemmal jeex na il faut qu'on se radicalise démb xanaa seetaanu leen vidéo euh, euh, xalaat TV xaw ma barki démb xalaat TV lu mu wax léegi révolution ana Adja Sow bu yoboo nga tiit de xalaat TV de dafa ñoom 700000 du ñu Mister Shake de ñoom 700000 abonnés la ñu am la TV révolution la révolution talen yi révolution. kër yi une révolution La révolution def La révolution TV soulèvement populaire Vous savez ce soulèvement populaire askan le TV je suis ngeen def place da kon nak bu ay nit ngén wa APR commencé len tit comme ni américain di waxé be very be very afraid be very afraid il faut que vous ayez peur commencez à trembler wa APR commencez à trembler parce que seen président bi kat seen président bi kat mom mom mom, mom dafa dafa dafa kannus loolu moom leer nañu seen président bi kat mom mom japp rek liñ la ni nga né da ngay japp ba paré yow yow Macky Sall du mooy président bu gën a dof Afrique yow xanaa gisoo Cheikh Niass yéen bàyyi leen jàppe bàyyi leen jàppe Cheikh Niass Cheikh Niass taalibe murit lu tax sëriñ yi sax waxuñu si ba léegi jaaxal na ma taalibe murit bu ñu rey nii dégguma benn sëriñ murit wax ji ana suñ Modou Kara lu tax génnul mu kaas mu li ngeen def suñu taalibe bi ñaaw na ana Abdou Bar Mbacké Bara Dolly man waxuma sa xalif général ñoon du ma leen wax ana Abdou Mbacke Baaru Doli lu tax génnuloo ngeen ne li ngeen def suñu taalibe suñu taalibe murid bii li ngeen ko def ñaaw na wala même bu dul sax taalibe murid suñu sénégalais bi li ngeen ko def ñaaw na sànq laa doon discuter benn tijaan moo ma ko wax sànq laa doon waxtaan ak sama benn xarit tijaan mu ne ma Mister Shake loolu war nga ci wax ah sa live war nga ci tuuti ma fàtte ko mu ne ma moom nga ci wax te moom tijaan la mais yëfi daqaa naqari mu ne li ma ci metti kii ñëw pour màggal kii ñëw pour màggal lu rey ko te dégguloo benn sëriñu murit naqarlu ko ma ne ko ah man de wax naa ko mu ne ma da ko war a wax ma ne ko man wax naa ko xanaa waxati kay ma ne ko amul problème dinaa la promettre dinaa ko waxati sama laay ci xool rey bu ñaaw bi yow Sénégal toog nga huit ans ñëwuloo Sénégal huit ans huit ans ñëwuloo Sénégal moo tax xamutul réalité yi xamutul réalité yi moom dafa yaakaar ne li am France ak amerique moo am fii policier da xew day wax nga ne ko mer saago te dula japp 8 ans ñëwoo Sénégal Magal rek mo la indi magal magal mo la indi nga ñew ñu arrêté la man bañ man man man man man xol leen man kenn waxuma ne magal ko indi de man dañ na ray nañu ben policier ben policier ray na nit waxuñu sax policier dañ ne rek Cheikh Niass deena euh campena man mun mo wax dara waye bama gisee photo Cheikh Niass bi ñu wane photo bi ñu wane mel na dafa mel na dafa rasta sol ay affaire yére murit ci la ne ki murit la lama jox kon na murit lama jox tay ñu ne 10 jours rek la fi def kon xeyna magal bi boko fi indi man lool la wax ba pare mané xeyna da doon dawal auto xawma dafa am de xëy na dana dawal oto policier arrêté ko xëy na foofu la jóge ni ma ko waxee noonu la amee billaahi si suba si laa liir ñu ne effectivement murid la màggal bi moo ko fi indi danoon dawal otoom fàtte carte grise am policier bi jël permis dem loolu mooy ñëwal jox ma 5000 comme yow Modou Modou nga boo ma joxul 5000 wala 10 000 te policier yi léegi dañoo dañoo dañoo fuy bu njëkk ba 1000 francs nga leen jox 2000 mais laajal laajal laajal car rapide yi ak taximaan boo jox ñoo joxe police ñemeti ñu jox 1000 francs policier policier 2000 nga koy jox jëm kaw bu dee moodu moodu moom boo leen joxe sax xam naa duñ ko laal moo tax mu jël permis bi dem doom jaa ngi foofu taxaw histoire bu tiis am doomu 6 mois xaw ma jabar nekk France ñu woo la kiling moom laay wax sama jabar chaque jour sama jabar moom laa koy wax chaque jour bàyyil nekk fi di jàmbat sama jabar soxna dama koy wax chaque jour bàyyil nekk fi di jàmbat. ah damaa bëgg lii lu ma la jox doylu ko su ma la yónnee xaalis doylu ko te nga gérer ko bàyyil di ma wax waxu cheveux bàyyil di ma wax wax lii ndax mën nañ la tàggee ne la Mister Shake dee na chaque jour dama koy wax xam la mooy sa àjjana xam nga la mooy sa àjjana saa yoo ma whatsappee ma tontu la yaa ngi ci àjjana ndax bis mën na ñëw nga whatsapp ma du ma la tontu ñu toog tuuti nga dégg ma ñu tàgge la ma ci YouTube bi Cheikh xam naa looloo dal jabaram xam naa jabar ji whatsapp na ko whatsapp whatsapp whatsapp mënu ko jot jékki-jékki xool youtube ñu ne ko Cheikh Niass dee boo demee youtube sax la ko jànge wala wala famille mokk ko dama ko koy wax soxna dama koy wax chaque jour dama koy wax del doylu mais jigéen Sénégal boo doon dañoo ne six cent mille sax en un ñu lekk ko ba pare dina laajaat parce que xamuñu àdduna dama noonu du ma ko fi wax dama noonu du ma ko fi wax waxuma ko fu tiitar de gars dama ne woon sama jabar wax bu mu leen waxee li ma ko fi yónnee temps te am na sax moodu moodu yu ëpp yu yónnee seen jabar lu ëpp loolu sama jabar dama ko yónnee six cent mille six cent cinquante mille la sax ndax benn yenn vingt cinq mil dama ne ko mayal sa sœur beneen bi mayal ko su beneen sœur six cent cinquante mille moom six cent mille ci un mois mu lekk ko gars yi loolu nan nga ko mën a expliquer nan la lu yónni nit yónnee six cent mille nga lekk ko ci un mois ba pare bindaat ko di ko ñaan nañ waxante dama ko zappé dama kaa mere ba dama kaa bloqué whatsapp te sama jabar sëykat la mais Sénégal moo ndóol ndóol boo xam ne 600000 sax ci un mois nga koy jaay billaay barke na sol laay 600000 léegi daa ñëwaat ci ci ci ci ci ci ci Cheikh Niass la li tax ma def kii boobu mooy loolu benn parenthèse la rek pour wax ne boo amee jëkkër bu nekk moodu moodu doylul ci lu mu lay ci lu mu la euh, lu mu lay jox mais aussi boo amee moodu moodu. ngeen tàkkalikoo comme jabaru Cheikh Niass ba jëkkëram demee dafa waroon di julli di ñaan chaque jour te xam ne am na nu muy demee dootul gis jëkkëram tàkkalikoo moo doy waar ndax yàlla rek moo moo la mën a wax di nga gisaat di nga gisaat Cheikh Niass mais léegi doom ji ñu saagu ñu koy saaga ci commissariat bi doom ji nee na dafa dem papam di yóbbul papam benn chemise mu dem foofu ah di wax ak commissaire bi commissaire bi faale ko sax policier bi mu ne waxal faale ko mu dem di wax rek. mu commencé ko yuux eh looy def foofu imbécile génnal looy def foofu imbécile booy bi neen saa yi demee ci papa bi gars yi di ko yuux mu gis papa ji di ñàkk tooy xep gis na ko gis na papa ji di ñàkk ñun waxuñu ne ñoom ñoo ko rey mën na am dañ ko dóor mën na am ko mais moom nee na gis na papam di ñàkk tooy xep xoola xale 18 ans 17 ans di gis loolu papa ji ne ko bul wax sa maam dara parce que sa maam boo ko waxee mën na crise dee bul wax kër gi waa kër gi dara booy bi dafa obligé dem fenn ne sam papa dafa tukki lan moy ndeyu téye nit ci carte grise rek carte grise parce que mi ngi mu lay filmer mais Cheikh Niass xamul li xew dafa gëj Sénégal Sénégal police Sénégal doo boo ko filmé da lay rey da yóbbu Cheikh Niass police Sénégal ken du ko filmer boko filmer dalay dalay dalay dalay dalay da lay da yóbbu da lay parce que ñom ñom ci ci ci 1000 francs 2500

mais ñoom ils la député falu lé député mais policiers dañuy ñu ne yi dafa mais salaire 150 000, 200 000. nga wara fay location man sama appartement de 000 fay dama chance deux deux chambres salon deux cuisines mais location lu muy yomb yomb yomb 75 nga am salaire de 000. lan bo des transport courant. un un un passe téléphone rek mën na ko jeexal passe téléphone rek mën na ko jeexal policiers yi dañuy dóor ñëpp dóor bi kenn mënu ci dindi te commissaire yi ñoo leen di jox système la bu ñu dóoree ba pare bu ñu wàccee dañuy jox commissaire bi seen wàll man loolu lu ma wóor la loolu lu ma wóor la am na du commissaire yëpp de mais am na commissaire yu ko ciy def lu tax commissaire yi di leen protéger sax bi léegi xale bi noonu la toogee ñu nekk fa di négocier di négocier policier yi bañ ñu woo Elimane koñ ba iliman dem ba tribunal wax ak procureur ba procureur bi ci dara il faut que policier bi bind lettre policier bi seen xol yu dëgër yi bañ a bind lettre noonu daal ñii naan camp pénal la deewee ñii naan hôpital la deewee kenn mënu la wax fan la deewee ñii naan camp pénal ñii naan hôpital nañ ñëwaat ci Macky Sall foofu rek ngeen xamee ne Macky Sall du nit Ibou Thiam Macky Sall du nit yow Modou Modou Mourid téna ci japp dañ ko japp même semaine bi nga jàpp Guy Marius Sagna waa léegi bu gii dé ci prison bi nak mais li ray li ray li ray Cheikh Niass mën na rey Guy Marius Sagna li ray Cheikh Niass mën na rey Guy Marius Sagna Macky Sall du fay jël ay risque Macky Sall du du du réfléchir Guy Marius Sagna am na mu doon demee mu Sénégal. Guy Marius Sagna am na mu doon demee mu ne xaar ma rey taal Sénégal damay xaru su ma xaroo dañ naan policier ma rey billaahi Guy Marius Sagna am na nu mu doon demee mu Sénégal ne comme Macky Sall day dof dof te Sonko mi ngi layam layami di tekk tekara te man ñu may di ma toroxal di ma toroxal xaaral ñii fee rek ma wan leen daal di rey boppam bu reyee boppam policiers yi lu ñu mënti wax kenn du gëm. parce que dañ naan rey ngeen Cheikh Niass léegi yéen a ngi nii rey Guy Marius Sagna te Guy Marius Sagna c'est pas n'importe qui Guy Marius Sagna c'est la Casamance yéen xanaa gis ngeen booy bi ñu naan ni ñu doon ni ñu doon songee police ba ci affaire yi ci événement yi marche xanaa yéen seetaan leen clip boobu booy bi ñu naan dañuy dem ba fees dal ci policier policier di tiire ci kaw pam pam pam taxul booy reculer Macky Sall du réfléchir il ne réfléchit pas na bàyyi Guy Marius Sagna ñun chaque fois dañ koy digal. parce que ñun buñ ko bañoon dañuy dañuy noppi rek comme ni Sonko def xëy Sonko loolu la xam Sonko xam tribunal dafa bëgg Macky Sall jàpp Guy Marius Sagna Sonko Macky Sall jàpp Guy Marius Sagna moo ko arrangé billaahi moo parce que day yee day yee nit ñi nit ñi dañuy gën a du ngi di ci def keneen ngi def Barthélemy dem tribunal gars yi dañuy match Macky Sall du nit du nit la loolu na xam la moo koy def bëgg nguur ba da ngay dem ba gumba ba pare kenn ñemewu la wax dëgg sa procureur Bassirou Gueye ñemewu la ko wax parce que bu la ko waxee mën nga ko dàq sa sa sa premier ministre kenn ñemewu la ko wax sa jabar moom dafa mel ne nekku boo demee mu ngi mu ngi Dubaay wala sa doom yi ñemewuñ la wax ñoom ñëpp man xaw ci ban monde la ñuy dëkk mais en tout cas leer te wóor li wóor te leer mooy ne une semaine yàggatul une semaine yagatul buma don mom de buma ma sax xaar fi ak semaine dama koy baye léegi dama koy libérer xam nga lutax tax avocat avocat Guy Marius Sagna dugalul liberté provisoire tay la ko doon expliqué avocat bi Marius Sagna nee lu tax liberté provisoire parce que bu dugaloon procureur bi fay appel té bu appelé après juge juge bi du jox procureur day temps parce que après il faut que procureur le juge pour juge bi ko procureur un mois deux mois trois mois té du bind juge té lool day ci bi tax euh, demandé liberté provisoire kon avocat avocat Guy a gëm gëm Sall gi Marsagna la nek ya, Macky Sall ci ay kankute gi Marsagna la nek ya, wa lool nak man man man nak man nak loolu mom dafa jaax voilà gay lool la mënon wax ci sujet bobu légui ma ngi ni eh, ma ngi ni Brooklyn ba légui euh légui comme eh, lim lañ ko waxe rek tay mom live relax la bëgg def parce qu'il fait vraiment beau tangul gis nga ma ngi ni top ci naaj bi xalé ay élèves top ci ay élèves toog fii léegi wax leen ma rek li ngeen xalaat wax leen ma li ngeen xalaat en tout cas daal en tout cas daal man dama bëgg rek waa APR ñoom Adja Sow bëgg ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ko moom comprendre Sénégal ñun ñëpp ko te Macky Sall ku ko bëgg sérieusement Adja Sow nañu waxante dëgg Macky Sall ku ko bëgg da nga koy wax Macky mais ñaari yow yaa ko wax sax Adja Sow lool Macky Sall moom ci boppam nee na deux mandats rek lay def pare kon kon vraiment lan moo fi jar nii wii nii non lu ko fi jar ah du ma la bàyyi parce que yaa dugg sama live boo bëggee ma bàyyi la da génn sama live nga bàyyi nga bàyyi commenté yaa fi nekk di wax Macky Sall di wane ay doole di def nii Macky moo fi nekk jeexalagul boo buggee ma bàyyi la da ngay génn sama live moo boo duggee sama live dama leen interpellé dama ne la seen président bi wax leen ak moo wax leen ko ne mais génn la rek ngeen ne façon man 2024 pare naa loolu sax jot ñun ñun loolu faalewuñ ko billahi booy xool ñun loolu sax waruñ sax intéressé di nga bokk doo bokk parce que ñëpp xam nañ ne doo bokk mais pour wane dëgg que ne moom changé na te sauver Sénégal moo ko tax a jóg Macky mënoon na génn rek mu ne bon léegi man affaire laa nekk jël naa nit ki waaw mais nga dem dama lay dama lay zappe sax Adja Sow xoolal zappe naa la sax léegi dootoo dugg sama live mu naan ma maa ngi dem bàyyi parce que bugg leen ku leen wax dëgg dëgg neexu la dégg man faalewu ma leen faalewu ma leen Sénégal moomu ñor doo fi ñëw di di wax nit ñi ba pare bañ ku la wax yéen xamu leen ku leen di conseiller pour seen bopp seen avantage yooyu ngeen am ngeen bañ mu jeex waaye day jeex par force yàlla moo ko tudd yàlla moo ne depuis le cinq de cinq quatre cinq six xaw ma sept ba huit mars ci la sénégalais yow yàlla moo ko wax yow Adja Sow si système bi nga bokk fii nga ma fi bind wax ma ko fi eh gars yi moo fii moo fi commenté du secret fii la ko commenté benn jour dama ko doon dama ko doon draay ne ko yow amoo dara loo wax parce que Ibrahima Pleya maa la ko may sa jëkkër la boo demee mu ngi lay yónnee xam nga di defar sa affaire xam nga lan la ma tontu gars yi xam nga la ma tontu. mu ne ma monsieur ma man namuma dara man sama xaw ma ndijaay xaw ma sama tante mi ngi assemblée nationale ñun ñu ngi nii dañoo am suñuy business patati patata APR patati patata lii la ma tontu. billaay barke rasulaay jëwuma ko yaa ko bind fii yaa ko bind fii sama laay waaw waaw yow maa la utal jëkkër rek la moo fi indi ay sama tante mais xam nga jëfuru day am nekk te li mu fi nekk yëpp di défendre Macky Sall nekk ci système bi la bokk ma laal ci benn point rek. xam nga rek tukuleur bu bu kii ndeysaan bu fier ba mu ëpp bi mu wax sax tukuleur bi ci tonaale tudd tukuleur dama ne ko maa la utal jëkkër Ibrahima Pelaya xam naa mi ngi lay yónnee xaalis mi ngi def sa affaire mu ne ma man namuma dara sama di yaay xaw ma sama tànt mi ngi assemblée nationale ñun ñun APR lañu am na ñu lii am nañu laa ñu ngi suñu business ma ne ko ah yow ko yaa ngi doog a ñëw yow ci système bi nga bokk bu ñu sañoon nag ki daf fiy toog ba 2035 billaahi duñu ay gor du ñëw ay góor seen bopp rek te ñoom xamuñu ne jeexal nañu billaay barke rasulaay fin de régime fin de régime buy ñëw day feeñ waaw gis nga fin de régime buy ñëw Macky Sall fin de régime la nekk xam nga la moo ko indi 9 mars scandale yu bëri nee naa leen waxuma leen ko fi woon Macky Sall dootul am jàmm ba 2024 sëgëm dina egg 2024 te képp ku ànd ak Macky Sall bu Macky Sall daanoo da ngay daanu ñoom ñëpp xam nañ ko muy ministre yi nee naa leen lañ leen di tudd dee leen mu tudd Abdoulaye Daouda Diallo wax leen ko mu wax ak Macky bu waxul ak Macky bu Macky daanoo day daanu de wax leen wax leen ak euh, euh, euh, Boun Abdallah mu wax ak Macky bu waxul ak Macky daanoo dinañ nangu këram de wax leen ak bu dee dañoo sàcc bien sûr wax leen ak Mbaye Niang ma Mbaye Niang bu Macky daanoo dinañ def enquête ci moom de Prodac bu dee dafa jël dinañ nangu këram de te am na nu muy demee ñu yóbbu si paquetage wax leen ak Amadou Ba bu Macky daanoo te waxu wax génnul bu Macky daanoo moom it day daanu de dinañ ko laaj ay milliards am fan la ko jëlee wax leen ci euh, euh, euh, Aïssata Tall ministère des affaires étrangères beneen xalpulaar Macky bu daanoo moom it dina ne waaw dinaa génnaat dana commencé waat dox léegi. wax leen ay sef taal Macky bu daanoo moom it day daanu waat day daanu de te dinañ nangu xaalisam dinañ nangu këram wax leen ak kan kan la ñu war a waxaat Matar Ba borom bopp bu rëy boobu dégg naa professeur éducation physique rek la woon xamu nu mu def ba nekk ministre des des ñu jox ko suñu 10 milliards na ko defaral suñu stade mu téye 10 milliards yi xaar ba nit ñi yuuxu ñuy doog a defar stade bi wax leen ko bu Macky daanoo moom it dinañ ko laaj lu tax mu téye woon 10 ak lan la ci jël bu mu ci jëlu bu dee jël na ci dinañ nangu këram te am na muy demee mu tëj mu tëdd Bougazelli wax leen ko ko wax leen ko ne moom dina rendre compte wax leen gars bindal leen ma tur yi xanaa man man rek maa fi nekk di wax waa tur APR xaaral ma jóg commencé def wax leen bu wax leen wax leen ma tur yi wax leen ma tur yi il faut que ñu leen di tudd waa APR il faut que ñu leen di tudd waaw affaire bi ay gàtta gàtta yéen a fi nekk chaque jour yéen a fi nekk di wax gàtta gàtta affaire bu gàtta gàtta xam la mooy gàtta gàtta dóor nga ma damay fayu dafa jot ñu commencé leen dóor gàtta gàtta moo jeex dafa jot ñu ñoo leen di dóor ñun ñun suñu bopp ñoo leen di dóor foofu ñu leen di tudd di leen wax ne def leen ni Moussa Diop génn leen ngeen def troisième mandat bu leen dàqee ngeen sauver seen bopp def leen ni ñaañi saaxoo génn leen ne du def troisième mandat def leen nu Moustapha Diakhaté génn leen ni Macky Sall du def troisième bu leen dàq koy ngeen sauver seen kër sauver seen bopp def leen ni Moustapha Cissé Lo may leen ma ñii ay kër ñi ma leen tuddal may leen ma ay kër parce que ay waa APR lañu ñu ñemee dëgg fii de accident moo fi am mel ne accident moo fi am waaw ah, tey moom dëkk bi moom tàng na sànq dañ doon tiire fële fii benn accident kan moo bëgg wax bii la ndeysaan xool leen ah dañ leen déglu wax bii wax bii moo bëgg xaar ma dem ma laaj américain bëgguñu ko leen filmer gars yi bind bind leen ma tur yi bind leen ma tur non mu ngi turee ci benn côté baax na parce que nee na nee na mandat waaye mi mu turee wax leen ko mu wax leen ko mu bàyyi Macky Sall ak kan kan moo des gars yi wax leen ma ku desati wax leen ma ku des wax ma ku des waxleen ma ku des waaye il faut que ñu leen di indexé waaw wax leen ah gars yi fii moom jël leen ko. xale bi war ngeen gis kanam fii mooy ñëw fii moom fii moom boo ko rombee moom bu ma ko rombee Security guard, do not feel bad. I'm sure I'm safe. He's not good enough. He's working that way. There's a bigger problem inside. I'm a gentleman. What's up, brother? jël leen yooyu jël leen yooyu jël leen yooyu. that's good bro. waa gars yi wax leen bopp waa APR il faut que ñu leen di indexé il faut que ñu leen di indexé di leen tudd ba ñu xam ne.

daf lay bàyyi foofu kan lañ fi jiñ sàcc dañu waxante dëgg kii lañu jiñ sàcc Mame dañ ko jiñ sàcc Cheikh Omar Anne merci dañ ko jiñ sàcc waaw na leer waaw d'accord mais Mamour Diallo moo la gën a bëgg mu leer parce que dafa porté plainte waaye ba mu porté plainte Macky Sall dafa nekk plainte bi sacrifié wu Macky moo nekk plainte Mamour Diallo sacrifié wu Omar Anne dañ ko jiiñ tey la tey la gën a nekk ministre de de de de l'enseignement supérieur Mamour Diallo ñu ko jiñ mu dàq ko moom bu la dàqee rek c'est parce que defoo dara parce que da lay jéem a boole population bi parce que Mamour dafa bëgg nekk euh, euh, maire Louga te Macky Sall Moustapha Diop da ko bëgg a jox ministre Moustapha Diop Mamour Diallo ne ko ci dal wax ji yëpp loolu la bindal leen ma tur yi ministre yi yëpp ñëpp ñi nga xam ne dañ fi nekk di collaborer ak Macky Sall il faut que ñu continuer di leen teg pression képp ku bàyyi mag sàll ku bàyyi Macky Sall dañ laa war a dooleel ku bàyyi Macky Sall dañ la war a dooleel dooleel waaw gars ku laayagul na laay waaw man daal tey defal naa leen laay bi gudd te nee naa leen tey boo leen dawul du ma daw am na xale bu baax buy romb xaaral ma ma may leen bii moom ku fa am da wax dara génération TikTok boobu. gars yi jël boobu te dama woon dëkk bi xool leen ngeen kañ la Sénégal di mel ni Amérique wala Europe kañ la Sénégal di mel ni Amérique xaaral ma may leen jéeg benn jéeg américaine bu xonk cur laa leen di may jéeg américaine bu xonk cur jël boobu boobu jël leen may leen Film moy America waaw waaw ke Bangkok deh. de fi moy Brooklyn ana ñu bëggoon ma dox lool ngeen bëgg ma wan leen da nga bëgg ma wan leen ci xalé yi wala ma wan leen wala ma wan leen dëkk bi 134 134 like c'est bon ku like gu like ngeen wax ma nak la ngeen bëgg ñu discuter parce que man sama jaan wàcc na wax na politique def na tourisme est-ce que du leen yobbu fele

boo fi ñëwee dangay ngay sa affaire bopp rek comme loolu dëkk la boo xam ne mën nga fi taxañ xaalis bu dul jeex boo amee chance surtout nag boo nekk ouvrier xaaral ma may leen jéegu jéegu ndaamal gosaas ndaamal ndaamal spanish ndaamal latina fii moom boo amee boo mënee boo amee métier xaalis bu weex tàll nga fiy taw nga fiy laaj mais temps yi sax boo amee vélo rek boo ne dawal vélo rek vélo électrique yi sax da ngay livré ci am xaalis bi jibu jeex wala nga nekk genre taximan da jënd oto fii oto ngay jënd rek def lu ñuy wax te da lay woo yóbbu dafa am benn compagnie bu tudd Uber fii fii moom vraiment Amérique mooy dëkk boo xam ne moom wax dëgg moom boo mënee dara fii ouvrier yi ñoo fi xaalis mais boo mënul dara da ngay obligé di liggéey liggéey taaba taaba même liggéey taaba taaba dañ ciy gën booy booy loolu tax ñuy rey seen bopp ci mbëkk mi parce que fii lu bon la par exemple mën nga fi liggéey 300 dollars 400 dollars par semaine 150 mille par semaine mën nga fi liggéey comprendre nga boo jàngu jonguloo mën nga dem benn restaurant par exemple wala nga benn benn boutique comme boutique yi yi nga gis comme boutique boobu mën nga fa dem rek dañ fay jaay ay yére nit gi ne la taxawal ma fii rek di ma surveiller yére wala mu ne la taxawal fii di di di dimbali mais Sénégal yaa rien dëkk boo xam ne amul jox président bi yoonam nekkul ci dara ñoom Youssou Ndour buñ jógee di soob sóob 65000 emplois yaa rien mais dafa doy waar quoi dëkk boo xam ne gars yi amul liggéey amul avenir ba pare bu ñu waxee rek ñu ne. mounien mounien muñ leen bu kenn marche waa léegi yéen jeunesse da ngeen bëgg sacrifier sen adduna ci àllaaxira xamu leen nu muy mel ba pare ñu ne ken du wax boy wax ñu ne ki mi ngi Europe mi ngi amerique lu tax lo xex lu tax defo li lu tax defoo la mais ñun bu ñu nexe ñu tok fi nek suñu jamm même bo liggéeyul sax dañ lay fay Sénégal amul chômage Sénégal amul chômage Europe am chômage Europe fonds Covid Europe am ne 1500 euros lañ Covid Sénégal Ni a laal xam la Macron. macaroni leen laaj monsieur monsieur mais mais ñun quand a nga jël sa mille milliards Ni dans la macron la la mais c'est n'importe quoi même le général joxe joxe maa ngi dégg ñu ne xalif général de mën a dimbali na xaw ma 2000 famille xaw ma xaw ma ñaata famille 2000 personnes xaw ma ndax mënd mi moo leen sonn xam nga ñaata lañ leen jox xalif général famille bu nekk 40 mille ak benn saaku ceeb ndox mi ndox mi sonnal la 40 mille ak ceeb lan la la mën lan la la mën indi leen di laaj rek 40 mille ak saaku ceeb lan la la mën a indi lan

xew bi waaw nee na li muy def kenn def dégg nga kon xam nga ne li mu leen doon ci activiste yi moo li muy def kenn defu te pourtant Karim ku nekk da am foo yem mais Guy Marius li mu ñemee activiste yi kenn ñemewu moom moo pare pour dee mais ñi si des ñëpp dañoo bëgg fekkee tax ma leen di attaqué maa ko xam ndax tey Karim mi génn dëggal ma na dañu war a bàyyi Guy Marius Sagna te dinañu génn dinañu def révolution dinañu def li may Karim wax day ñëw kay wax lii suba bu ñëw attaqué Sonko loolu tax nit ñi fi mu nekk xamatuñu xamatuñu fa la ñu placé Karim mu xaq mais mais vidéo bi mu def tey vidéo bu dëgër la dal ci Macky Sall dañuy jàmbaarloo moom dañuy génn

non mënu ma mënu ma jënd lekk léegi parce que tamit ce serait pas poli ma nekk sama live bi lekk loolu moom du ma ko def parce am na ñoo xam ne dañoo xiif am ñoo xam ne ñu ngi Sénégal xëy na sax amuñu sax lu ñuy reeree wala bu ñuy reer fonde lañu ñu dara jënd wala bu ñu amul fonde dem jënd tàndarma kon nag gars yi ngeen baal loolu bu ñu ko mën a def mais naa continuer rek léegi naa lire commentaire naa leen commentaire yi euh, xam naa nag live il faut ñu arrêté ko parce que tey je pense que wax naa dox naa yéen tamit def nañu échange waaw ah, man njaago laa sama nja ah bu yóbboo affaire bu yóbboo ñu ñaanal ma dem liggéeyi de fonde ak cere rek fa am man bi man man koo koy wax gars yi reeratuñu kon nag bu fi nekk di lekk samay steak gars yi ngeen may seetaan loolu rafetul rafetul ñoo xam ne gëj nañ lekk ñam yi mel noonu am ñoo xam ne gëj nañ ko gis billaahi am ñoo xam ne gëj nañu lekk yàpp normal gëj nañ ko chandu sax dafa cher ay 500 700 chandu sax jarul 500 500 chandu ay 700 mille francs lay jar chandu nga xam ne bu njëkk ba ay 300 la daan jar billaahi 5 jours ma nga xam dama naan jot chandu neex 300 ma jënd ci 2 jënd sama coca teg billahi mooy nekk étudiant waaw chaise jour laa daan def restaurant bu garaaw HLM ñaari sant lay jënd jënd sama foxaa sec dóor ba gàtt taxawee na mais xoolal léegi kii nee na man man pain cent franc ak mais cent franc gis nga gis de gis nga li jule jaakaar wax xam nga ne lii ñaaw na kon bu ñu fi nekk naan damay dem fii di jënd samay affaire di ko lekk ngeen may gis xam nga ne pain cent franc kii nee na Sénégal fonde cere moo fi ne am waaw waaw gis nga xanaa doo ngeen tey doo génn dégg ci ñu wax ay noo def ba xam ne laay bëri dañoo julli yow kon maag yow ñoo yem yow sama julli yi ngay wax yow doo jéem a toppatoo na ñuy changé Sénégal comme ça nga mën a ñëw lekk ci yii nga mën a ñëw lekk nga mën a ñëw lekk ci dibi yii nga may wax ay ay julli lii la ñuy wax wala a ça lii moo ñu yow Julio Diatta nee na 100 te Julio xam naa ne ci dëggam la nekk de 500 francs ak meew moom lay moom lay njëkk. xool leen fi ñu jaay ay caq yu rafet ñii di jaay ay chaîne xool leen fi steak yi ma leen wax moo nekk nii sama xel nekk na ci tey ñu kenn mu jënd gis ngeen steak yi ah, xam nga ne Julio lii reere ko moo gën a neex ak cinq cent francs ak néew te juillet da nga am chance ndax au moins am nga deux cent am nga deux cent yooyu dépensé mais xam nga ne lii lii ñu ngi ne steak bi xolle xolle xolle xolle xolle plat gars yi maa ngi jégalu de maa ngi jégalu ndax xam naa ne am na ñoo xam ne ndeysaan seen xel mi ngi ci quoi. awa ko. lii ginaar bi. man est-ce que tey du ma mélange damay mélange bii bii laay mélangé ak steak bi fan lañ tudd genre genre bi yi maa ngi jégalu quoi maa ngi jégalu mais li yëpp pour war leen rek ne am na ñu sonn daal ndax Julio Diatta ndeysaan xam nga xam nga ndeysaan ah mburu cent franc non yow fii fii du dara Ih, putus. Ih, dudara, dudara, dudara, darah, darah, beda. beda. Karena 2 jours, 3 jours dañ leen ko permettre. Dañ leen permettre 2 jours, 3 jours. Xam naa fii ba week-end bi xam naa lañ leen baare. Mais normalement ñii sax fii du marché de. Ñii war ñu sax nekk fii. Dañ leen ko permettre rek. Fii di tous. Mais dama leen bëgg expliquer gars yi. gis nga àdduna. xam nga maa ngi leen di wan lekk yi mais am na ñoo xam ne gëj nañu lekk lii billaahi gëj nañ ko lekk yàpp am ñoo xam ne gëj nañu lekk yàpp lekk ñu yàpp te Sénégal suñu booy suñu xale yi dañu war a di naan meew di lekk yàpp comme sax bu ñu demee école bu professeur bi di expliquer ñu mën a comprendre non du sax marché hebdo lii daanu fi am xam naa semaine bii rek lañ leen ko permettre man fii laay fii laay romb samedi c'est foofu benn kii moo fa doon jaay benn camion moo fa doon nekk di jaay glace mais xam naa semaine bi weekend bi xam naa dañ leen si permettre li tax ma leen koy wan man maa ngi nii di dama koy romb sax bu nekk si ko sax bu dul woon yéen ñu ngi mel ma sax jënd kon sama kër sama reer ñu ngi may fay xaar mais tey comme gis naa ko sama xel da ci nekk mais dama leen bëgg expliquer gis nga àdduna lii ñu Macky Sall bu liggéeyoon lii mooy am Sénégal billahi wallahi taala gars yi xaaral ma wax ci dafa am musique quoi lii jombul Sénégal lii moo am fii moo am Europe lii moo am Sénégal moo am Europe tayal sax tayal tayal sax moo tax may lekk hamburger boobu mais bu dee da bëgg lekk xanaa gis nga restaurant bi mu leen yóbbuwoon sax xanaa restaurant bi mu leen njëkk yóbbu sax mais fii boo fi yàggee dund da ngay dem ba après et puis lekk yi baaxul nga koy lekk sax jour baaxul ay jabet la indi la yooyu mais Sénégal tamit nga bañ a toog nga toog amuloo protéine sa yaram lekkuloo yàpp lekkuloo ginaar. yàpp léegi dégg naa kilo bi xaw ma ñaata lay jàpp léegi tabaski ba tabaski rek la nit ñi di lekk yàpp wala màggal wala ngénte ndeysaan dafa metti lépp Macky Sall moo ñu ko teg ndax bu dëkk bi amoon liggéey njëg yi wàññeeku mais nit ñi dañuy lekk mais ñun temps am di Diouf temps Ablaye Wade dañ daan lekk yàpp normal temps am di Diouf temps Ablaye Wade dañ daal lekk yàpp mais léegi waa affaire sax xaalis yëpp sàcc خالص دكبي بصح تدن ها صات سينا نيو خالص دكبي ييب ني وارا ديفلوبي بور نيت ني ليغي لك لكوج ليغي نك نيو ياكان ني لولو موي كونتيني بو ني واخي رك ني خالص جنرال خالص جنرال خالص جنرال مي نيت بو ديمي با خيف اموت لو موي لك دو генي سي بيد بي كاس نانو كو نونو مارشي امول ني واخ رك ني جيرو جيرو بي كاي دا فا بري سي نغي تي اك يوي mais mais madame Diop gars yi dañoo ne mange pas ah famille famille da ngay gis famille boo xam ne ay togg ay 3 kilos ceeb wala 6 kilos ceeb kër famille mais loolu kan moo ko mën chaque jour kan moo mën jël 6 kilos ceeb nga ne da nga chaque jour famille kan moo ko mën il y a beaucoup de bouches à nourrir yéen li am Sénégal xamu leen ko te sénégalais du wax parce que loolu la xam pour moom loolu moo normal ñu ci bari ci loolu la ñuy judd pour ñoom loolooy normal boy bi doon kaas boy bi amoon bak di kaas di wax gisutul fondé légui tandarma lay réré di joy pour mom fondé réré fondé mo normal ah pour mom réré fondé mo normal loolu may loolu mooy problème ah ay situation bi loolu takkar na xol leen ci américain yi nag ah xol leen nag xol leen xol leen xol leen sen mbokk yi ñu mbokk américaine noir yi amérique non hamburger géey am na ci boo xam ne du ma ko tudd man de moom laay lekk non neex na fii àjjana la ko man damaa fa xolewu rek man fa xolewu ma moo fa xole woon bi nokkal naat mais nag baaxul baaxul parce que tamit boo fa bëggee liggéey boo fa bëggee liggéey daf ngay toppatoo sa bopp

boo amee tatouage sax duñ la jox tatouage sa yaram duñ la jox kon moo tax ma leen bàyyi leen seen yooyu ngeen ay tatouage gis nga sama rasta yi dama ko mujj dindi sama rasta yi dama ko mujj dindi ndax lan pour am job démb fi ma dem sama photo euh, passeport bu ci nekkoon sama dëkk yi euh, ndaw si ba mu ko xoolee dafa gis sama photo yi mu ne ma mais tu es beau parce que instant yii rasta yi laa yor laa laa dóorul benn chinoise la ne benn chinoise. mana ne you you beautiful yo ki yo la mana ko mala dama mu ne ma lu tax nga dagg rasta yi ko ah job bi job bi moo tax ma dagg ko comprendre voilà ça dit mais Sénégal y a pas de travail Macky Sall moko day guéné 400 milliards Macky mo ne woon day guéné 400 milliards def ko ci xalé yi ni ana 400 milliards Macky Sall mo ne woon 65 emplois ana 65000 emplois boo ko woon ak Youssou Ndour ana Youssou Ndour dafa noonu day jàppale Macky Sall ci emploi lan la Youssou Ndour def boo waxee ñan la non bàyyi Youssou Ndour bàyyi bàyyi Youssou Ndour Sénégal du dem gars yi neexul ba neexul mais Sénégal Sénégal du dem quoi voilà waaw léegi gars yi defe naa war mën a xaaral ma wan leen circulation bi rek fii tuuti ngeen xool loo war a dem bos, ba jadi, nee na jeudi suba la vendredi waa affaire bi nga ñaanal ma ma liggéey parce allah jangan continuer di oh, eh, def di def laaj bu dee da ngeen bëgg chèque waaw kii nee na hamburger yu Amérique trois personnes mën na ci lekk ça lah des sandwich nga yaakaar ne bu mag bi lañ la jox nekk te bu ci gën a ndaw lañ la jox te bu ci ndaw day rëy ñoo moo tax nag yenn américain yi nga gis leen ñu toll te fii tamit boo fi juddoo baaxul quoi dëgg dañu dañu am problème mu poids waaw fii moom boo lu bëri dañu am problème problème mu lekk bi tamit daal live bi tey loolu léegi euh, suba incha allah dinaa xool actualité bi. mais li ci gën a am importance moy ñu mel ne ay Adja Sow Adja Sow elle m'a déçu elle m'a déçu elle m'a elle m'a vraiment déçu parce que nit ko xamné da nga ñëw sama live hein ah, nekkoon sama xarit ba sama way bi ben way bi ma way sax sama abonné yi dama la ci bolé mooy bi may wax Ibrahima player he ain't no player Adja Sow will tell you so vous êtes des amours avec l'amour, tout comme maman, oui, vous dit bonjour. Jour au parrain de Binte Mamour, si au marin de Binte Mamour, vous mes abonnés, vous êtes des amours. Ibrahima Playa, he ain't no playa, I so, will tell you so. Planet, how did you do from your fight? setubu kumbando fenju jaraba jarama jarngako ziarnala ajambargen japusen yamburgen binta mamo nuyu na leen so glamorous I'm so amorous binta saying hello Hello, never goodbye. Bintamamu is saying hi, hi, hi, hi, never bye bye. Ibrahim a player, he ain't no player. I just so, we tell you so. I just so. Kula way way bi, way bu neex bi, nga nek abonné. ñëw rek jàpp Macky Sall Macky Sall pourquoi parce que xalpulaar nga kenn du wax Macky Sall dara lu parce que da nga am sa Macky Sall xaw ma sa nijaay lan la xaw ma sa mais loolu waroon tax danga war a xool Mister Shake bu leen di diggal seen yéen seen bopp la ñuy digal senegal ñoo ko moom bu tàkkee ñëppay ñëppay perte ñëppay perte Macky Sall da nga koy wax dëgg Macky Sall boo ko bëggee da koy wax dëgg balaa liy dal Moïse wala liy dal Alpha Condé wala liy dal IBK di ko dal munoo nekk ci dëkk di noot nit ñi di leen noot yore ay milliards nit ñi gisuñu dara dëkk ci ndóol cent franc pain ak meew wax dëgg Julien Diatta mais loolu kan kenn mënu ci dikk yow waxoo sax beurre yow 100 francs pain wax ak meew njëggu beurre sax aboo ko waa léegi Julien ñu bëgg loolu di continuer te ñoom ñu ngi seen Almadi yore ay Range Rover di voyager avion 60 milliards yore ay milliards chaque jour ñuy gën a tibb Macky Sall ku jox ministère muy sàcc di defar ay faux billets yemuñu ci. di rey nit ñi di tëj nit ñi policiers yi di tëj nit ñi ñuy jàpp nit ñi di rey di tëj mais kan moo ko mën a dundee ban peuple moo ko mën a dund nga yaakaar ne chaque fois rek xalif généraux yi dañ fay nekk di amee wax amel naa la bor ak amel naa la bor amel day dem ci benn moment boo xam ne day pippu boo amee président bu dox nag ba boo xam ne fi mu nekk moom bu deful dara sax peuple bi mën na fut Macky bu deful dara peuple bi mën na fut mais moom moo ñuy provoqué di jàpp ay kilifa bàyyi bugaati jàpp Simon baye député bi jàpp Guy Sagna mais Guy Marius Sagna kan moo koy ko am ko am xel di nga jàpp Guy Marius Sagna voilà man fofu lay waxe mais ay adiaso yi nek bi di saaganteeg nit ñi bëggu ñu dégglu bu lo wax rek ñu ne makki makki makki mais ñom ñoo tax Macky dof il faut que tukkuleer yi génn mel ne wala nga melni wa waa Tamp yi Baye ñass ñoko ñu ñun xal pular lañ waye duñu ñu nga yak Sénégal ci 200 francs fondés, 100 francs tirés, 100 francs tégé tege nee Macky Sall rek moi, 400 400 par jour yow am 400 francs par jour au Sénégal Nous de presque presque 000 par mois 15 000 par mois nous avons ko non voilà gars nous nañ def noonu Inch'Allah. suba incha 5 euh, heures 6 heures. mën na am nag waaw côté 5 heures ma defal leen comme live bu tey rek comme ça may bouger di leen wanaat di leen wan ci xale yi xam nga jigéen ñi ngeen xool américain yi seen nopp góor yi ngeen apprécier ci xale yi xale tubaab yi blonde yi ak américain yi voilà waaw kon gars yi nañ def noonu bu suba mais nag man dama leen di dama leen di encouragé rek adduna moom lu mu métti métti lu mu métti métti bu ñu xeexee Julio, di nga dem ba après yow ginar ngay ree reere sa yo ko bëggé bu ñu continuer xeex bi 100 francs fondé yi day jéx 100 francs fondé yi day jéx di nga dem ba liggéey di lekk lu la neex bo muy lekk dina tax nga lekk sa sa sa bu jaar yo comprendre voilà chaque samedi nga dos ginar Sénégal bu jëpp loolu la parce que tamit di lekk ginar chaque jour baaxul waaw mais loolu pour moi il faut lu ñu xeex il faut que ñu xeex il faut il faut ñu gëm Ousmane Sonko xam ne sa l'homme du changement temps yi nag tekk tekkaaral la tekk tekkaaral na mais ñu ko ci bàyyi te xëy na am na lu tax mu tekk tekkaaral Macky Sall dafa tiit ndax bu tiitul woon xëy na bu téye Guy Marius Sagna ndax jigéen choc xëy na xam na ne mënu ko sàcc xëy na loolu tax mu tiit Sonko nag dafa mel ne moom dafa ne day xaar daal comme leer na ko ne mooy ganee local yi xëy foofu la ko bëgg jaare bu sa bu màcc sàccee locales yi nag xëy na la foofu la xeex bi di gën a commencé non métti na mais dina jeex ñun daal bu continuer di dénoncer di yee nit ñi benn par benn waa APR nag bugguñu bu ñu gisee ngay wax dëgg rek ñu tiit ñoom Adja Sow yi loolu mooy seen problème bu ñu gisee nga commencé wax dëgg rek ñu tiit bu ñu tiitee nag commencé nag di wax Macky Sall lii Macky Sall nekk di saagante ay nit xamuñu ne ñun. di Sénégal tàkkee ñoom ñooy perte ndax ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo ko am ay business ñoom la seen nijaay yi wala seen tante yi wala seen mbokk yi nekk assemblée nationale di liggéeyal Macky kon dëkk bi bu bu bu takkee yéenay perte waaw ba loolu sax war ma ko wax ñun ñëpp ay perte waaw ndax ñun tamit suñu famille ñu ngi fa voilà gars yi ba suba ah merci beaucoup kontaan naa ci yéen ku laayigal laayigal partagel balaa ngay dem jaajëfute vive le Sénégal jaajëf Papis ba ba suba